Euh, euh, euh, plante yi day commencé dal plante yi day commencé dal ci kaw ci kaw ñu bëri gars dañoo comprendre le instant yi nii incha na état Sénégal nañ ñu valider suñu mouvement rek dañu commencé génne carte membre yi gars yi dugg ci biir à part entière à partir de moment yi plante yi dina dal par mm-hmm. par vingt par trente inchallah man seen bilah. seen biir billahi non kon man Bilah kontaan si yow de billahi dama kontaan bilah yéen yàlla xam na ko billahi walaay yàlla leen yàlla may gudd fan ak wërgu yaram rek amin amin amin jaba ya billahi combat bi yàlla sotteeg jàmm te insha inshallah bu neexee yàlla day baax inshallah inshallah day baax inshallah day baax maa Bilah sa maa sa ginnaaw inshallah billahi walaay man moom su ma sañoon ma yor sa numéro lépp looy def ma bokk si envoyé ma message envoyé ma message boo ma envoyé message waaw dinaa la envoyé message incha allah jaajëf incha allah bu neexee yàlla ok wàcc ma jërëjëf waay merci beaucoup. jërëjëf gars yi nag keneen jël ko. modérateur yi waajal leen ko moom. keneen jël waaw. kontaan bu baax a baax a baax ci initiative bu jël combat bi mu porté mu nek combat bu reuy bo xamanteni si ni tey mën naa ne euh, yàlla dafa fekkone ben affaire bo xamanteni ni nit ñi dañ ko doon laal di diko di bay bayal yow nga ñew rek porté ko rek c'est-à-dire yëngal lepp ba ñëpp ñëpp tay daw daw wut ci la dama damay wax souvent né ñun satan soxlaawuñu tey yàlla 638 personnes yi nek ci ko yëpp di seetaan ak ñeneen ñi nga xamanteni ni say soppé lañu dañu laa war di ñaanal chaque chaque jour parce que xam nga lu tax da nga jàkkaarloo ak ah, euh, monde illuminati da nga jàkkaarloo monde satanique ñun satan soxlaawuñu ñun parce que tey peut-être amuñu benn influence pour mën a yë pour mën a influencer ñenn ñi mais satan boo yëngalee maanaam li nga xamante si ni tey monde bi yëpp tey euh, moom la ñu moom moo ndara yàqal monde bi tey boo ko yëngalee tey porte combat bi satan day jàkkaarloo yow kon yow tey instant bi da nga nekk face avec le satan. donc nag ma lay wax na nga gën a na nga concentré wu parce que instant bii ni ni ni ni ni du yomb de ak ku la wax dina yomb dalay nax du yomb te xamna ni yow am nga conviction bi am nga am nga courage parce que c'est pas par hasard rek nga nga nga nga attaquer combat bi parce que rien n'est hasard au monde peut-être yow yalla may na la capacité ak euh, ni ñu capacité de résilience bi nga xamante si ni mën nga tey muñ ba mën a porter combat bii nii peut-être yàlla yow la ñu nga mën a soppi lii parce que du yomb di nga jàkkaarloog monde illuminati te ñooñu ils sont capables de tout tey jii ñi nga gis tey ñu topp topp la di la attaque ci réseaux sociaux yi partout ñooñu bi xam nga lan mooy seen facteur problème c'est-à-dire que ñooñu ah dañu yaakaar ci doomu aadama ñooñu lii moo tax ñu naan nit na nga gëm yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla te bañ a wóolu parce que fii bu lay attaqué yëpp c'est parce que da da ngaa attaqué koo xamante si ni ñoom dañ koo yàgg maral taatam loolu rek mooy problème bi te ma lay wax benn affaire gis nga concert bi nga xamante si ni moo xewoon foofu noonu nga doon ci sensibiliser yella même bu fekkee ne benn nit moo ñëwul ci concert bi tu as réussi tu billahi tu as

li ñu war mooy def benn bouclier sa ginnaaw yow bul xof bul tiit bul ragal parce que xamal tax ñun sa ginnaaw te ñun xam nañ ne te yow tey jii amul kenn tey koo xamante si ni mën nañu manipuler ñun ba yow dugal suñu bopp yi loo xamante si ni jërëñ ginnaaw bàyyi amul mm-hmm. xam nañ ñi nga jàkkaar loolu le mii ñun dañ koo xeexal te moom amul lu mu déggul amul amul ko yàqul taxul mu neen mu màtt si mu màtt xam xam li mu xam

ma ne la ay markatu taat lañ loolu dong la du leneen waaw te gis nga li ngay xeex noonu mooy moo gën a bon trop moo gën a bon daaloo moo gën fen parce que bu fet li li si gën a garaaw mooy yow à chaque chaque jour rek à chaque fois rek yow da ngay jàpp ne dinaa dinaa dinaa tekki à chaque fois rek da ngay gëm da ngay gëm da nga naan sooy su ma joué rek dinaa tekki souvent loolu da day dem day dem ba accro sa bopp yow yow doo xam sax yow après boo amul nii da ngay dem sa sàcc yow xaalis soo ko gisee sax sa loxo yi day nekk di raf raf yi pour sàcc pour dem joué ji mais loolu loolu misi banaaru la man aw ma xolo man célibataire la aw ma jabar amagumay doom mais damaa xam ne lii nii tey jii ëllëg su ma demee ba am jabar ami doom billaahi wallahi taala bu fekkee ni lii nii nii lañ dara dund moom jarul may marié jarul may ami doom lii lii maanaam day yàq société du léegi nga koy gisee yàq gis ni nekkul pour moom ñi nii nii jamono bii de mais pour génération non non pardon pardon gars yi tëj leen seen micro tëj leen seen micro gars yi dégguñu ko tëj leen seen micro conscient salaamaaleykum waaye seer naa leen bëgguma la de yow jambaar jambaar jambaar bàyyi leen ko mu bàyyi mu pare bokk am na kuy wax yéla man la man la man la sekk la man la man la xola damay dem moo tax damay dem ma ñu bëggoon a sànni rek bala ma dem. vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y. waaw ok non la dem waaw yéen a man man man yalla xam na ne la bëgg la billahi. jaajëf jaajëf. dama lay topp nag top topp bi gis na ma ngi ci bur li nga def lepp dan naa nag barke yàlla mais man len rek mo sama problème moy euh sama préféré bi ngay tudd rek moo moo moo eu métti man yow yéen muy Waly Waly Waly Ballago Seck mu ngi tudd. Waly waaw mais Waly Seck xanaa du Pouf. ah. xanaa Waly Seck du Pouf. wàcceel kii waay wàcceel Waly yow dégguñu ko dégguñu ko ngay wax ngay wax bi ngay tudd. waaye ci kaw ma nekk ci xaw ma bëri. ko waaw man kii waaw ñun ñu ngi xaar soo ba léegi bëgg a wax kii di wax kenn. mais mais laaj ko laaj leen ko lu tax lu tax tamit ne nii que. est-ce que Wally Seck dafa gën booy ah modérateur yi wàcce nañ ko nag modérateur yi dañoo soxor tey ñooñu euh, waa Baka Baba jëlal après bàyyi jël wala eh eh yor ngeen fi benn jigéen nag nañ ko jox kàddu gi après keneen jël ko. kii nii sax euh, kii nga taf sax dama bëgg a dindi ko tafal faro bu bees bi billahi yàlla rek ñoo génne ci góor a gis nga concert bi hmm. ñu bëri liñ bëggoon a sol soluñ ko liñ bëggoon a def defuñ ko billahi maanaam gis nga kii kii sol yére bii maanaam lii soo am de daf koo def pour maanaam forcer boppam nit ñi maanaam dafa forcer boppam pour yàlla taf ko wala keneen taf pour mu am ci buzz ñooñu ñooy war buzz genre nit ñooñu mais yow waroo buzz moo tax ñun dañ laa war a jàpp man damay déglu waali bu daanelee ma daaneel bu poussé ma pousse mais dama ne nit bu nekkee ci dëgg dëgg dëgg rek la mën a doon bëgg nit ki bu mu teree bul ko waxee dëgg nga ne nangam ak dugg na fii dugg na faa firaw na moo gën a yées si nit ñi daraan dimulai ay doomu adama daraan jox ay nit dépense kon nak manam Sénégal buñ kal fofu nan wali borom xol bu rafet laak am ño xamanteni mo yoré sen moo kër ak way firawna Macky Sall mo gëna yé Sénégal am ño xam mo yoré sen kër day dara kan mako ko fi jëlee du ñun Macky Sall daan yëkëti 500000 ay passeport diplomatique di may gaay ci gratuitement kon kooku bu doon gën rek bu doon def moy tax nga gën kon kay sama waji ku def ya gën ñep bu doon ku def lu baax rek am nga droit def lu bon kon yonent bi xanaa du jàmm yàlla moom ah ba bàyyi loolu ay waali xol bi dafa rafet xol bu rafet dafa tax ngay nga yàq yàq jeunesse Sénégal def lu fi kenn defut juum juumaat juumati juumati man damay taal sama live des fois di wax damay gis xaw ma dañ may signaler damay jékki-jékki ñuy dagg sama live bi aj ma ay sept jours dama kay toog du ma live sept mais yelaa bu ndaw mi ngi nii bi ni tey man naa yelaa bu ndaw bi barki Serigne Touba foo tafee ma taf sa peggo tamon numu gëna jaaxal. moy da ngay gis ku nek senegal amul xeymu mu dëgër ñaar dërëm heure bo tafé amna sama benn booy heure bo dugalee ci vidéo dama koy gis mu commentaire ci suuf ñoo bokku koñ de mais dama koy saaga fu mu gëna ñaay ñaawee bu ne ma wax xanaa xamé wu mo ko xamé na la kay da nga mëna commentaire rek ma mën a tontu kese. <laughs> bul yéelaay nangam nangam man mu ne ko nangam nangam mu ne ma boy man ngay saaga xana xamé wu ma ne xamee naa la bu baax a baax da nga am sa soir am sama soir waaw. wax deug yalla ñaaw làmmiñ moom kenn gënu ko def kenn mais li ngay xeex daal moom bu ci teggi tànk amul arrière lu baax moom boo koy def amul arrière comme que ñoom ñi bon ñoo mënta arrière ñu arrière ndax loolu laa am lu may joxe comme conseil te ba jeunes yi tamit ñi xaw a yeewu tuuti quoi ñun baadoolo yi maanaam star yi fi suñ kaw rek la ñuy dund hmm. Adama boo gisee léegi oto boo ko neex lay dawal kan la kan la dàq liggéey Europe Adama kan la dàq yow 7 heures kan la dàq yow 6 heures papaam nekkul président Europe yaayam ko amul passeport bu nit ñi amul amul liggéey bu nit ñi amul te oto yi mi dawal ñun duñ ko dawal nga war a xam ne ko moom mi ngi mi ngi dund suñ kaw mi ngi dund si suñ pauvreté moo tax hmm. sénégalais si seen cere ñoom noonu demee mais ñu bëri jeunes yu bëri fii demoon kaaw fii ak ci kaaw bi ñu si bëri dama yaakaar duñ xaw a yeewu quoi Sénégal maanaam ba léegi daa am ñoo xam dañuy nelaw bo duggee ci kaw bi ci ngay gëna bëggaat sa dëkk yow manam ndax da ngay xam loi bi fi am ak règlement bi fi am ak respecté gën respect doomu aadama muy lu asalaamaaleykum wa wa di bien ya, sûr allah am nag lu di la wax moy di la wax ni la kontaan ci yow et c'est la première fois aussi mo duggu ci sa live bien vrai que ni damay rombu sa live tok deglu mais lay do ra duggu mais bo gisee mo deg mo duggu dama contente bi ngay def barke serigne ba bakkar ci kontaan te gis nga sa xex bi ngay xex bi ni nga réussir ndax ma lan motax da ngay xex lu baax te gis lu baax lu ko def muku muku muku ba am lu bon lu bon kay def ba am ci loo xam ne lay naqar mais lu baax kenn du ko def ba am ci lu bon te xeex bii du yow kese yaa koy xeex nga képp ku bëgg lu baax rek ci réseaux sociaux yi pare nañ pour ànd ak yow nekk coalition bennoo xeex lépp loo nga xamante ne si ñaawteef la doomu aadama yi di ko def yow waroo yem sax ci xeex carte kase carte xaalis waroo ci yem yow dangaa war a xeex bay xeexaale yi nga xam ne dañuy di sàcc nekk à la bi di tek nit ñi bi yow yooyu da nga wax allah man bi naa suuree pare naa coalition ubbi groupe ubbi lu mën def pare naa ci xeet bi ndax am solo kay def bu am mu réussir allah rabbi réussir yow képp ku bëgg lu baax da lay topp xaw ma na ku bëgg lu bon fi nga sa tànk

yàlla. nga xam lu boo gis bu mujj ci lu baax. incha allah li ngay def nii sénégalais ñi bëgg lu baax ñëpp kontaan nañ ci yow. billaahi man moom bis ni ki sa dara dootuma raw dama lay topp ba fu mu yem nii ndax yaa def lu am solo a kontaan na yow billaahi ba di yàlla defal la jàmm ci barke Seydina Muhammad yow bu bëgg lu baax bëgg la. billaay ku bon mënu la bëgg bëgg na ndax yaa ngi def lu am solo yow da li ngay def maanaam yéex a génn ñun ñu def ba topp Ousmane Sonko sacrifié suñu bopp dali bi loolu ko daj sacrifié ñu nga xam te ni moo ñuy jëmale kanam kon ma yow li ngay xeex amoo si njëriñ maanaam yow amatoo ku la mën a convaincre ci àdduna du King Saliou du Waly du kenn ku la mën a promouvoir def loolu loo bëgg a def ni ngay wax ak jeunesse bi la te gars yi dañoo jàpp na yow dangay ngay xeex wali personnel yow nga xex wali ban njëriñ la la am lu la njëriñ yaay xey yaay xam sa terang salam alaykum nit ñi da ngay waxe fi ñi waxe fele merci beaucoup dégg nga dégg bina maaleykum da. waaw bay len yi mu pare. allah ma leen yéegee coupé leen micro ngi voilà ku bëgg te ko micro bu ñu dégg ñu xam mais li ma waxoon rek ñun mom paré nañ pour and ak yow yella paré nañ pour and ak yow encore une fois fo tek sa tank buñ ko mané dina ko fa tek fo taxaw wax buñ ko mané dina fa taxaw ñun tamit wax paré nañ pour and ak yow nak ci lepp man bi na ci paré na pour and ak yow ci lepp nak gis nga djub ak djubal deug rek la ñu bëgg té yalla suñu borom tax séntu wuñu ci lanen da ngay def te yalla tax defo ci ngir lenn yow tiktok dundul la kaneen ak kaneen koy xex dundul la wañu wuñu la yokku wuñu la da ngay def te yalla tax lu bax rek ngay def gis nga jeunesse yi bëgg lu bax contane nañ ci yow premièrement man contane na ci yow yalla ya defal la jamm te coalition bo woote groupe bo xëcc teg lépp loo mën di def pour xeex li nga xamante ci mom moy mooy ñaawteef yeeg bon bon yeeg carte xaalis yeeg ñoom seen yépp jeunesse yi bëgg lu bax paré nañ pour and ak yow alaykum wa rahmatullah ngeen baal ma ak jaa ngeen def wa alaykum waaleykum wa alaykum salaam merci beaucoup il faut savoir que lps biñu ñu créé And so bëgguñu def affaire rapidement wala di yàkkamti de a jël déclarer ko niveau autorité parce que buñ ko déclarer ci niveau autorité lan la ñuy légitimité Vous légitimité permettre du def ay attaquer à justice sama a def tamit ay manifestation sama def ay demande ci autorité combat parce que lobby ay entreprise dañu amal affaire monde business bi lañu amal affaire c'est ñom Donc, am doole am ay moyens donc ñun tamit que ñu dajalé suñuy moyens, des suñuy et puis aller au combat inshallah ok na kenen seul gars yi ñu Assalam léegi. wa waaleykum salam. Ouais, euh, je vais parler en français parce que mon love, il est pas trop, il est pas trop chaud. Il faut essayer de se débrouiller vu que les gens qui sont ici, la plupart. Débrouille-toi, débrouille-toi ouais. seulement. Je sais, mais le mélange message, un peu Ouais, mélange un peu les deux. Le ah. message, c'est ouais, je vais essayer, le message, est un peu plus par rapport à toi. Ouais. Euh, par rapport au, combat que tu es en train de faire exactement, je suis mm. totalement d'accord avec toi. Parce que j'ai mm. même un cousin à moi qui a eu un problème concernant tout ce qui est paris sportif, mm. qui a un souci il y a quelques mois, qui a été condamné et qui, bah, qui doit payer les pots cassés, clairement et nettement. Et juste pour t'expliquer, euh, le combat que tu fais concernant sérieusement Paris sportif, euh, les vols, les, codes promo qui sont totalement faux, euh, qui sont insignifiants, c'est du n'importe quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, mais vraiment dans l'ensemble, même le fait que, que tu es tagué, à un moment donné, j'ai vu Eladjouf, Khalilou Fadiga, etc., qui, qui sont ambassadeurs euh, XBet, etc. C'est, sérieusement, le combat que tu fais, il est totalement noble. Celui qui dit, celui qui dit le contraire, c'est-à-dire que soit il a un problème mental ou il a des neurones qui manquent. Maintenant, euh, même concernant, euh, comment dire ça encore, n'importe qui, hein, même par rapport aux artistes, euh, ceux qui, ceux qui, ceux qui promouvoient tout ce qui est, tout ce qui est concernant les paris sportifs et ce qui va avec. Mais juste, moi, c'est juste une chose parce qu'en fait, le combat que tu fais, il est tellement noble que, en fait, si je pense, si les personnes qui ont envie que ton combat aille le plus loin possible, ils doivent te mener dans le bon chemin. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, quand tu déborde un peu, personnellement. Euh, par exemple, sur Walisek. Sur Walisek, je reviens dessus. Parce que comme on dit, euh, promouvoir, ce n'est pas bon, et je comprends, tu as envie de envie de condamner ça, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, il y a une chose. Euh, si je ne me trompe pas, il n'est pas ambassadeur de, n'importe quel pari sportif. Euh, bien sûr, il a fait monter des personnes qui font des paris sportifs comme King Saliou en question, qui fait des paris sportifs et qui promouvoit le paris sportif, mais qui est monté. C'est King Salut qui est monté, qui lui a donné de l'argent. Ça, c'est un cas. Mais en, aucun cas, il a à dire qu'il, il, s'est attaqué ou il a voulu faire une, ou il a fait une publicité concernant les codes paris sportifs. Maintenant, la seule chose que j'ai, que j'ai, hum, où je, où je comprends pas, c'est un peu la fixette. C'est-à-dire que tu as dénoncé concernant les personnes qui ont volé, tu les as affichées sur les réseaux tu les as affichés sur TikTok, tu leur as montré que clairement et nettement que c'était pas euh, à faire, clairement et nettement, jusqu'à leur montrer qu'ils étaient fautifs. Khalilou Fadiga, j'ai vu El etc., ambassadeur, j'ai vu tu les as tagués une fois, tu les as laissés. Ce que je comprends pas, c'est le ben, fait que tu tagué Walisek. Le fait que tu tagué Walisek. Attends, je termine. je Non, mais attends d'abord. Bon, écoute à moi. Toi, tu étais là hier quand on a tagué Diouf et Fadiga tu étais là la semaine passée quand on a tagué Djouf et Fadiga. Je, termine après, on, revient. Non, mais je te demande, mais moi maintenant je te demande, c'est la question que tu as dit, c'est ce que tu as dit, je te repose la question là-dessus. Est-ce que tu étais là la semaine passée quand on a tagué Diouf et Fadiga donc, faut pas te lever et voir Djouf et Fadiga hier et dire non, tu les as tagués hier, tu les as laissés, tu as tagué tel hier, tu l'as laissé. Non. Ce qui montre que tu n'as même pas suivi notre combat. Ça, c'est le 1. Et de deux, de deux, il n'y a aucune fixette tu as parlé de tout, hein, sauf, hein, pourquoi tu parles Non, les gars, gars, modérateur, si c'est vous, prenez le hein. Si c'est vous seulement, ne les, descendez pas, on a besoin de opposants. Venons sur proposants, On a besoin de opposants, donc euh, s'il vous plaît. C'était pour. Ah, kon waa ji li mu fi jot a ci ah, français yëpp da doon convaincre di jéem a roofaale boppam. non nee Non, non, non, nee naa waaw jàmbaar waaw nee na maanaam gars yi bëgg a ñëw nuuxu yelaa maanaam roof bopp rocc génn gi ci biti. nee na te ñun xam dof lu waay def rek yow la yow la nee. nee na ñeneen ñi eh, man yelaa yelaa ak rek rek porté baba yow li yow yow kenn rek laal ci Sénégal. baba ah jamono jii muy Ousmane Sonko parce que moom rek ah. moo moo moo yi jaar ci yoon bu leer jambaar Pour nga def say écouteur pour me a comprendre nit ñi bu ñuy wax ci live euh, euh, li ma li ma la bëggoon wax c'est moom da doon expliquer ne nii que euh, lu tax ñu des ci wàll yi moom kërëb kërëb mais moom dafa war a wax musul wax si waxu góor jigéen yi di saali fi ci di wàll yi di promouvoir je ne sais pas pourquoi tu as parlé de tout sauf la promotion hein des du du LGBT que tu vois en face de toi tu n'as pas parlé de ça. C'est le seul artiste pour aller. C'est ce que je viens de t'expliquer. Attends, attends. pas fini, tu m'as coupé. ouais, mais tu, tu m'as coupé, tu peux pas savoir ce que j'allais dire. Mais, tu peux me laisser terminer. Et après, tu parles. ok, bon, tu moi, peux pas savoir ce que je vais dire. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Tu peux laisser les gens parler. On vient de te faire monter. Arrête de forcer. On t'a écouté 5 minutes. Le problème, c'est que tu ne peux, peux, pas savoir ce que je vais dire. Tu as parlé pendant 5 minutes, on a compris tout ce que tu as dit. Tu sais pas ce que j'allais dire. Tu as parlé pendant 5 minutes, on a entendu tout ce que tu as dit. Tu sais pas ce que dit. Tu sais pas ce que j'ai à dire. En fait, bon. est-ce que tu es prêt Un moment. Moi, j'ai pas le temps à perdre avec des, des, des, des ignorants. Voilà. Écoute-moi bien. Si tu es en Woubi, c'est ton problème. OK Si toi, tu es en Woubi, et que tu viens pour défendre les Woubi, c'est ton problème. C'est pas notre problème à nous. OK Tu n'as qu'à rester dans ton petit France là, parce qu'apparemment, vous, beaucoup d'entre vous ici, vous avez oublié qui vous êtes. Vous croyez que la France est votre pays parce que vous êtes né ici. Vous avez vraiment oublié d'où vous venez. Et nous, c'est pas notre cas. OK Les imbécilités qu'ils font ici, là, personne ne va faire ça dans notre pays. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Vous êtes en France, vous faites ce que vous voulez en France, mais pas chez nous. OK Tu veux promouvoir les Portugais, tu le fais dans mon pays, ici en France, mais pas chez nous, euh, au Sénégal. Tu veux promouvoir les jeux d'argent, tu le fais en France, mais pas chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous sortir tes bêtises. Oui, on est avec vous, avec les jeunes, on est avec les jeunes. Nous, les jeunes, là, on n'a pas demandé l'aide de qui que ce soit. OK On n'a pas demandé mettre de qui que ce soit. Toi-même, es posé en France, là. Qu'est-ce que tu as fait au Sénégal Qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes du Sénégal Tu as dénoncé quoi Qu'est-ce que tu as dénoncé Dis-nous. Qu'est-ce que tu as fait avancer Aucun d'entre vous, aucun d'entre vous, on vous a vu conseiller la jeunesse. Aucun d'entre vous, on vous a vu conseiller la jeunesse. Maintenant que les jeunes décident de sortir, Commencez à prendre leurs responsabilités. Vous sortez avec vos bêtises. Oui, non, vous devez toucher à tel, vous ne devez pas toucher à tel. On va toucher à tout le monde. On va toucher à tout le monde. Ceux qui ne sont pas contents, venez nous trouver dans les rues, à Dakar, c'est tout. Quand on va sortir, manifester. C'est aussi simple que ça. C'est quoi ces comportements d'hypocrite là Genre, on doit toucher à certaines personnes, on ne doit pas toucher à certaines personnes. Si vous êtes des suiveurs, nous on n'est pas des suiveurs. Ok On n'est pas né pour être des suiveurs. On est là ici. Ici, ça ne sera jamais chez nous. La France ne sera jamais mon pays, ne sera jamais le pays de mes enfants, ni le pays de qui que ce soit nous concernant. Nous, les Sénégalais, on reste Sénégalais à vie. On vient, on récupère ce qu'on a récupéré ici, on se casse dans notre pays. Est-ce que c'est compris Ça, on est clair. Nos cartes de séjour, on le paye. On n'a pas gratuitement. On ne demande rien à la France. On n'a pas besoin de leur aide à la con ou quoi que ce soit. C'est quoi C'est échange de bons procédés. On leur donne, ils nous donnent. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si vous voulez jouer aux victimes éternelles de, l'esclavage, de mes couilles, de je ne sais pas quoi, vous le faites. Mais nous, ce n'est pas notre cas. On a, on a trop de choses, on a trop de projets. On a du gaz, on a de l'or, on a du zircon, on a du phosphate. On a tout ce qu'il nous faut dans notre sous-sol. Voilà pourquoi on a récupéré notre mère auprès de l'Union européenne. Donc, on n'a pas le temps. Donc, vous, les gamins qui sont ici, là, qui sont nés ici, restez dans votre froid, continuez à jouer au petit West-West comme vous voulez, c'est votre problème. Nous, on compte rentrer. Notre objectif, c'est de rentrer le plus tôt possible. Quand on dit immigrer là, tu pars et puis tu rentres chez toi. c'est ça notre système à nous. On va construire notre pays, on va le développer et après on va rester chez nous et c'est eux qui viendront chez nous. Et quand ils vont venir chez nous aussi, ils vont travailler, ils vont rentrer chez eux. C'est aussi simple que ça. Ils auront des cartes de séjour comme nous tous, comme on l'a ici. On n'a plus le temps. Génération sur génération, vous voulez vous faire passer pour des victimes. Génération sur génération. Ouais, on a été esclaves. Ouais, on nous a esclavés. On s'en bat les couilles. Arrêtez, ça y est, c'est bon. On est passé à autre chose. On n'a pas oublié. On n'a on pas oublié, mais on est passé à autre chose. On avance. Parce qu'on a des responsabilités. On nous a confié un pays qu'on doit construire le plus rapidement possible. Donc arrêtez de pleurer et nous fatiguer oui, il faut toucher Vos complexes là, gardez-le en France ici. S'il vous plaît, c'est ce qu'on a à vous dire. Et on n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Tu veux te battre, tu viens, tu te bats avec nous. Tu veux pas te battre, tu n'as pas, faut pas te mettre devant nous. Faut pas te mettre devant nous. Mon ami Sylvain, si tu as un complexe, c'est pas avec moi. Si tu es un bonhomme, laisse-moi monter, laisse-moi. On t'a laissé monter, on t'a dit de la fermer, tu écoutais. Tu croyais que tu avais un pouvoir ici. On t'a descendu, maintenant tu es en bas. On s'en fout, on ne te connaît pas. On s'en bat les couilles de ton âme. Allez, Thiègement, euh, Talibé ou le Papa Mali. Waouh, Bismillah. Bismillah, nous l'aide. Ah, déjà, c'est qui ça doit venir ça Yo, yo, toi déjà tu comprends même pas bah, wolof non xaaral rek xaaral rek toi déjà bah, toi déjà attendez attendez rek toi déjà tu comprends même pas wolof tu parles même pas wolof tu viens tu nous emmerdes ici avec tes bêtises hein parce que toi tu es en France si si en France là-bas tu as accepté ay affaire de conjugué hein nous on l'a pas accepté au Sénégal point merci allez gars nous les ngi Wow, waouh, waaw waa ji moom mon, position de toute façon xawma sénégalais la xawma lan la mais mom gis nañ position xamuñu wobi xamuñu wubi la xamuñu lan la eh sénégalais la intéressé wuñu de toute façon intéressé wuñu yow li wax non non ok ça va kon ma ne kii Sénégal la daa nekk góor jigéen rek. maanaam Sénégal léegi moo bëree. waaw waaw loolu la rek. foo gis rek ñi baax am na ñoo xam ne ñi ci ginnaaw di xeex lu bon. waaw mais ñun bu bu ñu changé suñu objectif. lenn la ñuy xeex mooy Sénégal baax te Sénégal dafa war a baax. ndax réew mu mel mm. ni Sénégal moom. defe naa àdduna bu wërngër këpp amul benn réew bu ko yàlla may ñi fi tëdd rek. doy na lépp doy na mel ni Sénégal mais ñun ñoo ko bëgg ñëpp bëgg a mel ni Sénégal ñëpp amul benn réew bu bëgg boo gisee boo gisee élection yi passé ni ñu jëlee ni ñu jëlee affaire bi à mai xam ni ñun ñi jeunesse bu exemplaire lañu lu ñu bëgg suñu réew mooy am que ça soit muy góor ji de góor jigéen ak leneen ak leneen ñun bu ñu bëggee góor jigéen du fi am du fi am ala kulli xaal ñun ñooy décider du fi am te du fi mës am loolu c'est pas c'est pas dans ce pays te je crois à ça yàlla moom gars yi ñu ngi lay jaajëfal te xam nañ sa taxawaay macha allah li ngay def moom damaa bëggoon sànq maa ngi la koy bindal message ne la daa amoon benn kii bu ma bëggoon partager ak yow te sûrement te dafa mel ni ñoo bokk on est dans la même dans la même phase ndax li ma bëggoon wax loolu ngay wax instant yi pour ñu jéem a xool euh, affaire bi nan la ñuy defee ba mu nekk mouvement boo xam ne nationaliste la mouvement boo xam ne jëriñ sa réew la mouvement boo xam ne day am ay papier légal ndax war nañu jóge ci euh, internet dem ci dans la surface ce n'est plus quelque chose que xam si ay y lay nekk ci appareil téléphonique certes euh, tu as ciblé euh, une bonne une bonne partie l'internet parce qu'on on, on, voit qu'à partir de l'internet surtout à partir de TikTok on peut sensibiliser beaucoup de gens. donc qui a commencé c'est la mais mbir moo commencé rek dafa avoir un am jeexital te jeexital ba dafa nekk te lu baax loolu noonu noonu gisuma lenn lu koy mën a defal mooy affaire bi dañ ko war a nationaliser dañ ko war a nationaliser dañu war a jóge fi ñuy nekkee ci TikTok dinañ ko nationaliser dinañ ko nationaliser ni d'abord il faut que ñu def déclaration yi ci kanamu autorité yi il faut que mouvement bi mouvement bi ñu valider ko officiellement voilà loolu laay xaar loolu la ñu nekk liggéey noonu noonu si suuf non dégg nga ko doon wax moo tax ma ni daa euh, sànq bi ma sa première live ba nga jógee fële ne dañ laa convoqué woon maa ngi la doon bindal suuf ne daa amoon benn idée bu ma bëggoon kii mais sûrement euh, benn idée bi la quoi te loolu da ciy gën a jàpp ndax affaire góor jigéen moom toujours noonu la ñuy def ñoom dañuy jéem a fexe nu ñu jéem a naxee jéem a jaar ci télévision yi jéem a jaar ci xbet bi jéem a jaar ci musiciens yi surtout surtout musiciens yi mooy seen cible principale

yàlla eh. incha allahu rabbi jeunesse bii ma gis man am naa confiance ni incha allahu rabbi changement day am tax sa genre gii nii ñooy changé dëkk bi buñ ci amoon cinq cinq yàlla buñ ko amoon cinq yàlla of léegi ñu gis lu bari changé fi Ousmane Sonko ñëw na am benn aspect politiquement bu mu changé mais Ousmane Sonko mënul changé lépp dafay am keneen benn influenceuse boo xam ne wala influenceur boo xam ne day changé benn aspect nit ki lan la war a seetaan. ndax dañoo topp ci benn affaire boo gisee benn aadamoo di def live ñaata nit ñooy nekk ci biir live bi di seetaan comment nan la ñuy defee nan la ñuy sëyantee nan la ñuy saagantee surtout surtout loolu rek lañ ciy jàngalee mais loolu loolu benn aspect boo xam ne tamit état bi da ciy war a jug mooy am na yoo xam ne sax warul daw seen YouTube nga nekk Sénégal yore seen boo xam ne day jàngale yu baaxul loolu dañ ko war a maytu jàppal te te am na kuy wax bàyyi leen ko ko may mu wàccee après nga wax. yow katal sa nday bàyyi sa li nga nekkee katal sa nday bàyyi góor jigéen. xoolal mu ngi naan ay tuuba ah? ay turu tuuba ngay utiliser di saa ay turu nga naan bàyyil góor jigéen ay turu tuuba. non ngeen de lii moo tax. lii moo tax lii moo tax ngeen war a xam ne. non jàmbaar déglu lii c'est important déglu déglu.

il faut ngeen xam ne ni que lii dañ nekk dañu nekk xeex loo xam ne dafa mais instant yi mënu wax bu baax maa lay leen di bàyyi ngeen wax ci benn tànk may comme lii rek mooy firnde bi ñoom fépp lañu nekk fépp fépp la ñu nekk quoi xoolal instant bii nii nga jël benn nga bind saatu Touba xaw ma di ci di ci di ci ngay défendre yow loo xam ne moom la yàlla gën a bañ ci àdduna fekkoon yàlla dafa am naqar naqaru xol nee nañu góor jigéen nga digle ko foo fekk lu bon nga digle ko nga tere ko kon xam naa daal damay damay damay nekk damay damay wàcc may ñeneen ñi ñu mën a participer ndax affaire yi moom xam naa ne mënu ma ko jeexal te am na ñeneen ñoo xam ne bëgg nañu participer kon maa ngi lay sant di la jaajëfal di la wax nii rek ñu se ginnaaw. jaajëfal. dégg maaleykum maa ngi leen di jaar yéen ñëpp. général est que du salaam waaw yàlla. waaw rawatina rawatina. salaamaaleykum champion. suñu leader bi. parce que combat boo gis dafa am leader. xaaral may la. Euh, te lii yéen a di xeex. parce que lu tubaab li di wax seul le combat parce que Sénégal dafa soxla koo xam ne ne il est tellement conscient comme Yella Yella nag soo dëggee mu naan doole mënul dooleel boppam ñun jeunesse bi qui sont conscients xam ci lu muy bëre xam ci lu muy xeex xam ci lu nga tànkam ñun ñoo ko mën a dooleel ñun ko mën a dooleel nag mooy xar suñu tànk tubéy parce que dès maintenant Sénégal dafa taxaw ci benn anam boo xam ne ne nekul anam bo xam ne ne na taxaw parce que jeunes yu wara a rew jeune jeunes yu wara samp rew suñ démé exactement lo ne gëna ci les jeunes inconscients di monopoliser le système de le système des arnaqueurs lolu dafa wara pour mu comme le cas de Yella suñu patriote suñu ambassadeur nous suñu lepp ñun ñokoy jox loxo le ko Nous lo ne ci war fuñu joxoñ ñu dagg ko fu ñu tanka ñu teg parce que dès maintenant il est temps parce que c'est la première fois on influenceur comme la taxaw la jeunesse bi bëgg ci conditions c'est des bonnes conditions parce que dès maintenant Sénégal dafa taxaw fo xamné ne jeunes ñoko wara défar mais ñoko ngi parce que li soko gisé nga xamné ne li jëmalul kanam rew jël jeunesse bi di leen exploiter di leen di emploi ci condition yo xamné c'est des conditions très très très très mauvaises to Sénégal soko xolé tay comme lu cas bi mo ci gëna a tay jeunesse yu wara taxaw liggéey Sénégal instant nii liggéeyu nitul Sénégal de ñom dañu nekk ci tanka bo xamné né dañu taxaw pour yàq ndaw yo xamné sax dañu ñëw and ak sen conscience

lépp loo andi taxaw nga ci yeela maa ngi sigil nan la ñuy sécuriser TikTok laa bëgg a xam waaw TikTok man des fois live comme nii da ñu bëri dañuy dugg sama live mais damay dañ may lu si dagg sama kii munoo munoo ah, léegi da ngay nu may def ba maanaam bu ma la message man laa dégg rek man loolu rek laa bëgg naa dégg rek man. message. man message la TikTok. waaw. message waaw baax na amul loo def noonu la ñu ngi sa ginnaaw ga amul leneen. ok amul benn problème naa maa ngi jël euh, envoyé ma message. ajouté la di Harun misal léegi bu ma wàcc. ok boy yaa salaam ñu ngi lay dugg. waaw di di wax ne lii nii yàlla na ci yàlla defal ndam. ndax lu baax moom boo koy dana metti lool nag dana dana xaw dana difficile pour nga réussir ko bu bu ndaw ñi ñepp ñi nga xamne bëgg nañ lu baax ñu fekk ci ci li ngay def ndax man bo duggé sama compte man yag na de sensibiliser bo defa ya salam 3 man sama vidéo depuis léma mat sama watch tiktok léma mat ëpp na 10 ans parce que léma jëgako mais sama vidéo yëpp bo ci xol luy luy jariñ ay doom adam rek la ci wax amul lén lu ci wax lo xam lu ñak fayda la wal dépasse ay nit sensibiliser ndax bo xol tiktok bi rek liñ fi ñu bëri liñ fi def moy yi fi ñàkk fayda yoy di fi gor jigen xamal nit dara yaqal ko wala nga weer ko du ko wili pande fi mu doon ñi li fi si ay der nit ci àdduna bi yépp ñi koy génnee ñëpp nekkuñu sénégal te ñi ñi leen jox ñi leen di informé ñi ngi biir sénégal kon ñu bon ñi yàq ñi ngi fii ci biir dëkk bi di transféré ay vidéo jàmbur ñoo xam di yàq seen der di yàq gor ñu baax ñi xam nga ni man bu ma france di xam ne nekk dëkk touba kan moo ko ko wax ke dëkk touba moo ko ko wax moo ko ko wax kon nag li li li ma gën a metti ci àdduna bi mooy mooy li ngay xeex nii te ñi la ci war a jàppale duñ ko def da gis ay boy ndaw yu ñàkk fayde yoo xam doo xam ne ñii góor lañ doo xam ba xam ñii jigéen lañ ci seeni colin seeni doxalin ci ay tuñ jàpp si yaram di xeesal kenn bu xam daal man Sénégal léegi man daal doy na waar daal doy na waar <laughs> mais voilà ñu yàq deru nit ñi ñëpp fii ci ñi leen di xamal ñu nekk Europe ñi leen ñi leen koy def yëpp ñu ngi fii biir Sénégal te lu lu ma ñaawlu la li ma lay wax daal moom ca kaw ca kanam rek waaw ca kaw ca kanam yal na yàlla defal ndam ci li nga bëgg xam naa ne naa may ñeneen ñu mais après dinaa la. kontaan nañ kontaan nañ. salaamaaleykum nuyu naa ñi ma fekk bi yëpp nuyu yow tam di nuyu sénégalais yëpp di nuyu képp koo xamante ni ko ni combat bi nii nga taxawal ànd nga ci te neex na la maa ngi lay nuyu bàyyiwuma ken waaw ñi ma bàyyi nag ñi ma wan gannaaw te bank samay juróomi baaraam bañ leen a nuyu ñenn rek la mooy ñi ànd ak ñoom mais képp ku àndul ak ñoom ak képp kuy xeex lii maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax te naan la nag lii nga combat bi nga nii amul nuñ ci kontaaneewul parce que man maa ngi door a gis sax combat boo xamante ni ko nii nit mi ngi ciy dox may gis ni lii neex na sama yaay neex na sama papa te neex na ay nit ñi nga xamante ni ko nii ñom la mëna ni ñi bëgg nañ lu baax donc man lool non, dama damasi dama ci nango duggal sama loxo bi moy bi moy deuxième fois man may dugg ci sa live mais amul amul amul amul nu konta ane ci yow ak liggey bi ngay def encore une fois bala may wax dara tamit dila ñaanal parce que yow tamit ak nu mu mënti démé yelo nga kula ñaanal waaw parce que ñun ñi xamante ni ko nii amuñu benn doole bi wala suñu xam-xam yeegul fenn fi wala kii lu ñu moon moom mooy ñu ñaanal la parce que kenn xamul ban gémmiñ la yàlla di nangul moo tax man avant may wax dara dama lay ñaanal parce que xam naa ci combat bi nga dugg nii lan la ak yan façon yan façon nit lañ ko séqal ñii lu bon jaral na leen lu nekk ci këru àdduna bëgg lu bon ak bëgg am xaalis bu bon ak di ko nangoo jëlee fu bon moom moo leen jaral ñii nekk fii di sol ay di jigi ay góor di jigéen jigéen loog ay jigéen yuy góor góorlu surtout nag gën naa ci mere nag xale yi jigéen yi nga xamante ni ko ñoo si topp si ginnaaw di bind ay kii yoo kii gis naa sànq ba ñii di bind ay diw moom mooy sunu àdduna ak moom mooy sunu alaaxira kooku ñoom ñoom ñi koy bind ñoom yéen laay waxal ñoom yéen loolu moom moo leen concerné yéen loolu yéen yéen a xam mais ñun lii moo ñu concerné te yéen du seen ay ndey wala seen ay baay yuy tere ñun ñu dox ci lii wala ñun ñu ciy wax. il faut nga comprendre ni que loolu noonu ngay gis. lolu lobby la lo la looloo tax may wax suma abonné sama modérateur yi nañ ko bloqué parce que loolu ça moom laay wax ay trois cent ay trois cent ngay dépensé rek ay milliers de personnes dañoo dañoo dañoo fees lobby la ci biir kër gi ci biir kër gi di masqué wu di ñëw ak ay ay faux compte lu ne ñi ngi fees ci biir kër gi dell li ngay wax rek la déglu parce que xoola combat nga leen ah. leen laal wax ñii danga danga da ngaa da ngaa seen taatu maam ñaf si ay xiir bamu mu saf sàpp dañ koo yëg lii ku mu ku metti ba mu lay tond wala mu lay saaga wala mu lay wax yenn yi rek c'est parce que xoolal ñuus yi leen ñuus ñoom dañ koo yëg xam nañ ni bu baax danga leen noqute laala goo leen carrément fi nga leen war a laal mais ñuus nga leen ñoom ñëpp ba ñu day day seen tubéy yi moom moo tax mënatuñoo sol tubéyu góor day seen tubéy yi moo tax mënatuñoo def yëfu góor il faut ñu wax ko te dee ji yéen norme couche yi ñu waroon couche yi gars yi di jaay si boutique yi sax ñu war ko jëndal suñu doom yi pour ñu koy ngemboo doomu xaram yi jël nañ ko léegi moom la ñuy taf seen bun yi pour ñu bañ a senn ay imbécile lañ duñu ay nit yu baax promouvoir rek lañ fi nekkee ak carte xaalis def lu bon te li ñuy promouvoir sax bu nekkoon lu baax la ñu ne waaw mais promouvoir fi dara dara dara loo xamante ni ko nii da nga naan lii yàlla na sama doom dem wala yàlla na ci sama rakk dem wala man yàlla naa ci dem sont des imbéciles ay yàqkat la ñii ñoo ñii ñoo raw ay jinax ay kaña ay mbóot ci biir kër ñii dañuy ñii dañuy yàq société ñii dañuy tax yàlla yàlla gën ñoo jéppi ñu book ñoom yooyu noonu ci yooyu lañuy dox parce que ñoom ci lan la ñuy dox mooy jëf yi nga xamante ni ko nii benn nit moom mooy am xaalis pour sànq àdduna ñii ñi leen ñi sës si ñoom rëkk sax nga leen di dégg ñu leen di wax di leen taggal seen ay maam des fois nga gis si ñenn ñoo xamante ni ko bu nu ñaanul nit du nu am tang ne yaa and ak millionnaire wala milliardaire muy muy muy nek ci yenn combat yi nga nek ci ginnawam di ko té amna yenn yo xamanteni ko yow lo ko sa bop c'est parce que yow ñi ngi lay doxlo ci lo xamanteni ko yow xamoko ko yow lén rek mom mo la ñor moy buzz bi ak wéccet bi ngi ci am ak ñu lay wane ay télé ay ki yoy lañ ci bëgg amna ño xamanteni ko ni manam bëgguñu dara seen àdduna quoi ñoom dara ñoom bugguñu dara dara dara dara dara lu ñëw ñu dem si xamuñ yow boo gisee kii léegi yéeg fii ay bind ay saatu baa ba pare taw fii di wax li moom bu fekkoon sax dafa ñëw contraire la beneen façon mais xoola xoola xoola fi mu njëkkee ngay xam ni ñii ay vrai imbécile lañ mu ne yow bàyyil góor jigéen ñi kii doomu xaram la kii man kii man su ma ko xamoon su ma ko xamoon man man maay wax ni su ma la xamoon ma fekk la ba nga nekk ma toj sa cottu ngay wax bàyyi yow sa papa xëy na góor jigéen la ku jur sa góor jigéen la moo tax nga ñëw fii di wax bàyyil góor jigéen yow nga ne ñu bàyyi góor jigéen yow soo ñu wanee góor jigéen yi fu ñu nekk fu ñuy fréquenté ñu fekk leen fa toj seen cottu ndey ba léwalaale sa caapa ndey teg ko ci pont 92 bi doomu xaj ngay wax ay bay leen góor jigen yi yow waxuma sax góor jigen yi mais jigen yi ak sa papa ak sa yaay yep la ni boole di toj sen cott nday beug sak jour di yegal sen nday di wacce sen nday te du ngeen ci mën cott nday doomu xaram Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salaamaaleykum si jàmm baax waaw yal na la yàlla dimbali grand ñun dañoo jàppale barke alxuraanu karim jaajëf man mbuur laa dëkk man boo pare woon tey jii ne nañ ubbi groupe maanaam jug manifeste ne xbet dégage wubbi dégage barki leeru alxuraanu karim man sama koñ pajjale nit lañ man mën naa xaa diriger yàlla rek maa jàppale grand yow. yow foo yow foo nekk nga ne.

Thiès maa ko géré Thiès. waaw ajouté naa la kon. yàlla. waaw. ay ay jamono maanaam da liggéey mason man vacances yi hmm. liggéey mason wàcc trois mille. Hmm. jàdd perte trois mille yi. doxaat ni bi xëyaat liggéey waat trois mille jàddaat ñëw perte trois mille yi si si bët waat barki leeru alxuraanu kari liggéey naa man ba weer dee soixante dix mille franc billaahi wallaahi alkilaay ma perte soixante dix mille si Sika ma jox ma jënd ko téléphone ki ñu wax Matar Diawara ma pertaat moom si Sibet bi amul lu ma perte man si Sibet maanaam mais temps yi billaahi wallaahi taala soo xoolee ni may comporté woo nga xam ne instant yi noppalu naa si Sibet ndax yow Sénégal fii dafa métti da ngay simb simb day am sax de day am koo xam ne dañ koy honoré ne kooku mooy simb góor jigéen. barke alxuraanu karim simbu góor jigéen gis ko ne kii moo fi nekkal góor jigéen si simb bi mu ngi am Sénégal mais loolu fekk maa ngi mbuur man laa mag sama du amati mbuur jamono yi passé ñaata benn lien lañ ma arnaqué cent vingt sama nattu yaay la mu jël ko joué ko moo taxoon temps yi damaa génnoon suñ kër génn dem ndax attanuma gàcce boobu noonu billaahi yàlla damaa noppalu instant ndax yow yàlla yàlla la yàlla dimbali yàlla waaw yal na la yàlla jàpp ñun kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci yow baax. te yow lañ fi nekkal man maa la ko wax suba suba laa boo ma oo ne ma Cheikh foo nekk mm. dirigel booy grand mbuur laa dëkk ku ma bëgg seet ak ñoom seen seen seen lobby boobu noonu ku soxla pour def ma dara wala nga rey ma wala dara grand mbuur laa dëkk arrogance amul lu may ragal man ñoo leen ngeen fekk ma fii. duma benn duma ñaar duma ñett fuul lañ ñun fuul boo tayoon tey boo bëggee tey su guddi sax soo ma jëlee tey su guddi man ma génnee ma yaa tey ñu génn ma manifester tey su guddi boo paree barki leeru alxuraanu gën boo yee nga que ñun ba ñu nekk jeune booy lii lañ amoon suñu koñ munoo dugg biir rëbës di fa jaay prek nit ñi ñun ñooy décider suñu koñ ñooy décider suñu ville te jeunes yi ñoo war a récupérer seen ville ku ci nekk gis agression yi di am yooyu moun mun nañ li chaque jeune de chaque ville une responsabilité pour defar ville mais nous ko nous Nous ko te xoolal groupe bi nous créé rek Nous nan nous créé Nous la jël ah, Nous groupe bo, Nous ne deux trois responsables tamit bu Dakar ville Nous euh, si chaque ville des am responsable LPS Ligue Patriote Sénégal le Toulou Ligue Patriote Sénégal chaque ville des am responsable yo, moun nga récupérer ba su mbuur bi nga responsable mour. te Et que tous les jours mouvement yi si tu as un responsable est bientôt par exemple bientôt nous nous rendez-vous avec les journalistes dinañ intervention de ñuy def Média, médias yi euh, dama choisir euh, vice président bi bu nekk GAPS parce que dafa jàng mi ngi master yor entreprise am tey respectueux donc moom laa choisir pour que mu dem représenter MTS ah ci kanamu média yi donc rendez-vous bu buñ ko confirmer rek di ngeen nga gis di ngeen gis vidéo yi dina dem wax si suñu tour bu leen wax dara sama gars yi. voilà non la demee c'est seulement le début. acca waa ñu ngi lay déglu yàlla yàlla ñu xam nga nu ñu war a def. ba booy nekk Thiès. parce que moom 802 xaw ma Basir nee na moo nekk Thiès. moom na préparé gérer gérer lépp loo waaw gérer lépp loo xam ne mooy daw Thiès man mooma ah, bu dee mbuur fii grand mbuur laa dëkk maanaam booy paree pour jug jug exhibet dégage barke alxuraanu ko di man pare naa pour def ko mais exhibet ndax exhibet daf ñoo sonal musu ñun man man man damal xeex si kaw musumaa jàpp ba mu juddoo bu léegi musumaa jàpp damay perte te suma perte dama naan suba suma jéewaatee damay amaat gëmaat ko demaat pertaat man comme si dañ maa liggéey si exhibet billaahi noonu laa sonnee si si bet non liggéeyooñu la liggéeyooñu la xam la moo nekk ci la dal li ñuy wooyee addiction addiction moo nekk la dal da nga feebar da nga feebar te fii nii te fii nii euh, biir Europe bi fii nii pour faj ko ay millions ak ay millions ngay fay am na ñoo xam ne dañuy dem xaaral may ma deux secondes ma ana sama beneen téléphone bi ma wax la euh, euh, xaaral après dinaa ko seet gisuma ci sama beneen téléphone addiction day indi dépression problème mu des, day indi problème de xaru day indi ay problème cardiaque day indi jaay dañu xamul dafa dangereux danger boo xam ne nit ñi lii nii ah képp ku wax mais ñun gars yi dañoo comprendre léegi européens yi loolu tax européens ñun dañoo financer ay milliards ak ay milliards pour protéger seen ndaw yi si loolu voilà pour protéger parce que nit carte xaalis bu amulé lu muy carte bu amulé lu muy carte bu bu gëmu yalla deug deug deug dëgg dem agresser sañ dem agresser sañ dem rey nit sañ def lu ne te deux fois carte carte xaalis bu ñu day nekk si yenn moment yoo xam ne boo ko na la rey parce que xol bi day yegg c'est-à-dire que xol bi day tang bi peeru tang te surtout li kay gën pousser c'est-à-dire que derrière day xalaat lu mu ñak lépp day deug ni ki toog rek naan ak lu mu ñàkk yëpp xalaat ne nii que sey bu ko économiser woon wala sëy bu ko dugaloon ci lii day retour retour bi day ñëw ay remords di yéeg xol bi day bon te derrière taxul tamit te mu récupérer lu mu ñàkk yëpp. voilà man mës naa toog ma joué ba perte am benn boy bu tudd Moodu defuma dara romb ma nii rek mais bar tayu ma damaa jël xeer ba nu ko bëm te tayu ma ko barki Serigne tay sax defuma ko fii la dëkk fii. barki yàlla mais yalla man moom xam nga li nga wax nga ne ay millions moy fajj loolu man wax deug dafa ne yalla sama boss yow ya nga fajj non su ma la newé su ma la newé ay millions c'est-à-dire que euh, en temps normal da ngay dem fay li ñuy woowee psychologue psychologue dafa cher si Europe bi sax ñu ko gérer donc Afrique gars yi ñu xaalis pour fay psychologue te bëriwul sax Sénégal déjà donc mais psychologue nak la lay fajee da lay wax day wax ak yow chaque jour da ngay ñëw toog ak mom ngay waxtaan looloo sax may def live tous les jours looloo tax may bëgg a booyee di on di ñu déglu tous les jours en fait séance séance de psychologie lañ nekk di def loolu non, en fait li ñuy liñ euh, euh, psychologue bi euh, psychologie bi da lay jël di waxtaan ak yow di la laaj nag nga def ah di la expliquer un problème nga ci mën a am di la expliquer souci hein, loolu yëpp di la ci expliquer donc nous ñun loolu lañ dékk di def bu ñuy def suñuy laaj dañuy expliquer nit ñi yan problème lañ ci mën a am ah danger bu ci nekk

se ku booy pare yëpp man su ma paree man sax naa ubbi sama benn groupe boo xam ne sama groupe bopp la man mi dugal si boo yëpp léegi bu bu manifestation amee wala dara ñu ne dinañ génn def si tali bi isibet ndax sonal nañu dañoo perte perte ba kenn xamul lan la ñuy niróo problème bu dul am na xbet dégage bëgguñu góor jigéen Sénégal xbet dégage bëgguñu góor jigéen Sénégal xbet dégage bëgguñu góor jigéen Sénégal bëgguñu ki koy promouvoir Sénégal lépp a quartier yi jug dañuy génn rek yëngal amul génn moom nanga nanga génn rek yëngal directement comme manifestation Sonko yi parce que Sonko fexe na ba yëg ñu tamit dañuy fexe ba lii génn fi ñàkkuñ fayda c'est comme ñun ñoo fal Sonko moom lii jaaxaluñu te avant chaque manifestation dinañ contacter journalistes yi pour des points de presse pour des points de presse expliquer leen lan mooy butu manifestation bi te dinañ def en sorte tamit pour que mu mu am ay journalistes yoo xam ne dinañ nekk sur place mën a filmer yenn manifestation yi voilà et petit à petit dina jàpp Sénégal bi yëpp incha allah. salaamaaleykum. en tout cas dinaa la dugal ci whatsapp bi amul benn problème waaw 802. Ah. waaw yàlla naka mu. yow rek la ñuy topp. jaajëf maanaam adduna bi da ngaa ñu bari. daa am ñu bari ñoo xam dañ doon nelaw mais ñu ngi doog a yeewu maanaam am na ñu bari ñoo xam si ni temps bi daf leen ni bàyyi maanaam man maa man Wally lan lay satisfaire Sénégal laa xamul man lan maanaam style yi xew léegi yëpp boo xoolee consort la Wally bi ñoo ko dugal Sénégal dangay gis xale bu góor bu la romb yow tubéy jëmi sol doo xam góor la doo xam jigéen la man mënuma comprendre leen te man Wally man li ma gën a métti ñu sonn ñu doo ko topp yow tey jii da gis ñoo xam si nii dañuy dem concert Wally de buñ tourné di ñibbi dañuy dox man loolu moom ma gën a métti sama àdduna. billaahi wallaahi. ay métro ay métro ay métro 23 heures. waaw mais man man man man man sama maanaam sama xol dafa jeex maanaam maanaam jeune bi ñoo war a yow xam ne instant bi li leen di jariñ du waali moo koy def waali bu liggéeyee këram lay yóbbu. tey jii nii al topp yi topp ci ginnaawam bi yëpp di arnaque nit ñi di door nit ñi dama bëgg a gis waal yi jël sa xaalis di ko lekk waa gis waali lan la lay gar lan lay wàññi. wala da boo gisee waal dafa am lu mu lay satisfaire wala lan la wala day tax maam boo gisee waal da ngay tekki ci àdduna wala lan la nit li tax nga tekk yow yaa koy liggéey du waali moo lay liggéeyal waali boppam da nga ko ñor ak protéger góor jigéen man mu mën naa supporter ñëpp ba mu des King Saliou kooku moom barke Serigne Touba Mbacke laa la gënal bu dajantoon man ak moom moom leer na ma ni moom dina ma rey moom seguro waaw mais yow tey jii ku taxaw naa damaa yore milliard te yow munoo am ak kër yow munoo sati ni lii man maa ko moom maa nit ñi duñ xalaat moom li ñu lay xamal moom xoolal man jege naa la trop trop trop te xoolal bul yàlla barke Serigne Touba naa la seet France gi nga ne bul tiit dara lan la teg leer te xoolal Thiès link bu am doole lañ fa yor ñun xam nañ temps bi la fiy dox bu baax xam nañ fi ñuy teg suñ tànk bu baax a baax a baax barke Serigne Touba Mbacke yàlla moo bu déggantee naa la tegal lu garaaw fii live la moo tax ñoo waxee ci panel yi loo xam si nii lépp lépp ci kaw. si si si si. comprendre nga mais xoola gis nga. xib benn bi moo war a jeex Sénégal maanaam Sénégal instant bi lu ko développé leen war a ut. jeunes yi am si lu jàpp mën a demal seen bopp Sénégal dafa mbét suñu yaay ak suñu papa yi sonn nan trop trop trop trop trop tey jii yow li ngay dem benn trois cent franc bi ngay def ci carte gi jox ko sa papa mu yokk ci ceeb ak diwlin nag leneen trois cent franc mën na mais tey jii nga jël ko di ko def ci ak carte xaalis pour lan la nit da ngay dem gëm sa bopp dem liggéey bañ a topp si ginnaaw kenn Wally Ballago satisfaire Sénégal dara jëriñu fa dara lu lu yàq askan wi xale yi jigéen ñi tekkiwul tous topp ko man loolu moo ma gën a métti sama àdduna billaahi ni ngeen di démb yeelaa ci guddi dama xuloo ndax sa jëmm ji man dafa mel ni maa yor dañoo bokk ndaay ak baay billahi jege naa la trop nag soriwuma la dinaa la jël si suuf dinaa wax a yow li moom képp ku fay yeewoo moom. ñooy amul benn problème xam nañ liggéey bi bu baax la fiy dox xam nañ affaire fi ni jaar xam nañ fi ñuy teg suñu tànk ay mille personnes ñoo lay suivre yi nekk Thiès yoo xam leer na mu ne instant bi yow rek la ñuy na yéeg beeg déggante bi moo xaw a jafe. jaajëf. man chaque jour maa ngi lay suivre mais man dinaa la bindal sama ni numéro suuf nga woo man dinaa dagg déplacement bu foo ne ma fekk la fa ji soriwuma umar, ñu wax nag bu dajantee dinaa la ci code boo xam boo fi tegoo Serigne Touba xam na doo daanu nit du mën ci fukki dërëm jërëjëf loolu mo man maa ko samay wax nag du bari après xam naa ne la bàyyil sama numéro suuf amul benn problème amul benn problème ate euh, na ngeen def la ça va ça va tranquille maa ngi lay remercier si combat bi nga xamante yaa koy Mm. parce que di wax na nag dugg nga ci loo xam ne c'est pas facile quoi parce que Sénégal la ñu ne parce que depuis ba ngay commencé def live ba léegi maa ngi lay topp di la suivre mais c'est la première fois ma doog a dugg parce que ñun ay patriotes lañu. tey bu ñu gisee benn doomu aadama boo xam ne dañ mën benn combat mais ne lenn rek lañ man mooy dañuy ñëw pour jàpp si pour appuyer la. Mm, mm, Sénégal ben Sénégal ben ndey influenceur la am muy yow amul benen influenceur bu nek Sénégal bu dul yow benn influenceur la am muy yow mais Sénégal ñata influenceur ño fi nek Sénégal combat bi ngay mëne mënu wuñu ko et pourquoi wuñu ko influenceur yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal lan lañ apporter jeune sénégalais bi lan namako kenn wax parce que combat bi ngay mën ñi ñoom ñoo ko waroon a mais defuñu ko pourtant bu lo neexoon yow doo ko mëne mais leen rek laa wax mooy dama lay encouragé di la ñaanal yàlla di la wax na nag ñu ngi sa kanam man Kaolack laa dëkk Kaolack laa nekk. jaajëf. voilà li ma lay wax mooy bu ragal bul ti gis nga bu la nit xoxotal munuñ ci yow salaamaaleykum. te dinaa la wax benn te dinaa la wax benn information mooy combat bi ngay mën nii na nga xam ne autorités yi ñu ngi koy dégg de ñu ngi ciy jot carrément bu baax sax ñu ngi ciy jot. parce que man parce que man Pastef bokk am naa ci ay information yoo xam ne li ngay wax gars yi ñu ngi ci jot démb rek am na benn waaye bu ma toogoo fii sama néeg ñu ciy waxtaan combat bi ngay mëne am na ay avocats yu nekk Pastef ñu ngi ci jot carrément kon na nga xam ne nag a affaire bi réussir na bul ragal bul arrière bul daw bul arrière loolu amul li may wax asalaamaaleykum maa ngi jégalu nag dégg nga jaajëf amul benn problème jaajëf jaajëf may wax man la Pa Wali Samb waaw waaw waaw Wally Samba. ba yaa ngi am tawféex. ça va ça va très très bien. modérateur ubbi leen micro papa Wally Samba ñoom ñëpp dañuy tuddee seen bopp Wally rek. yàlla maa ngi lay siyaar nakay tey. alo waaw jàmbaar dégg naa de. wuyu naa la de nakay tey. wa de naa delloo siyaar wax naa la ko ñaari yoon ñu lay déglu. naka job bi. Jambaar euh, Jambaar nag il faut nga wax quoi parce que dama xaw occupé. waaw man naka job bi yow xanaa amoo liggéey ci Europe bi. xanaa sa man maa koy dundal. sa papa mi jaay guro mënoo dem dimbali ko. non loolu garaawul. sa papa mu ngi mari. non gars yi da ngeen koy bàyyi. dam ko doon ne ñun mosuñu dëkk location. te sama papa 2016 la gaañu. donc bàyyi na jaay guro depuis 2016. mais loolu dangay dem yoo dangay dem yoo nga dem fekk ko ci bàmmeelam nga wax ko loolu tax ma ne leen ñii di topp Wally ñoom ñëpp kenn gëmu si yàlla ay yéefar lañ yëfu góor jigéen lépp lu yàlla tere la ñuy topp amuñu benn éducation loolu rek la ku dem ba bàyyi sa tur baay ak sa turu yaay di tuddee sa bopp waan nga war xam ne ni que ñi perte nañ ale ñoo ngi leen déglu sama gaay na kenen jël ñu avancé way comme ça en attendant man ma dagg sama paya gars la beng wati ngi wàcc tapote leen tapote leen. laaj gars yi tapote leen waay. on t'apporte on prépare on partage peut-être que yow au côté là gars yi on t'apporte on partage. yàlla ñu ngi lay ziar wér di ziar. delloo ziar Thierno delloo ziar. di leen bëggee di leen wax ne man saa nit ñi mel ni moom maam yi dañoo yàq sa temps quoi man jëru ngeen tont et puis di man wax ak ñoom yooyu noonu quoi parce que may wax ak ñoom. ñoom man benn argument am muy saaga saaga moom mooy dernier argument saaga moom mooy dernier argument te ñoom boo képp na am muy saaga kon jël ñoo tontu quoi yow li ngay xeex maanaam benn cause pour la ma waroo see arrêt waroo see dellu ginnaaw te avancé léegi maam gars ñu ngi si ginnaaw et puis ñëpp si ginnaaw peuple Sénégal ñu ngi si ginnaaw loolu rek mos am solo mais ñi maam benn minorité maam bokk na ci maam ñoo nekk Sénégal bu ko yàq ñoom bëriwul benn bëriwul ba loolu nag maa ñun Sénégalais yi rawat na ñun Sénégalais ñoo si war a jug ñoo si war a jug ma daa ngay xeex parce que boo xoolee maam isaan yi maam Sénégal maa la fa nekk daa maa la fa yàqu dafa bëri trop rawat na exibet et puis yow yàlla yow la ngay def nii maam yi influenceur maam yéen influenceur parce que maa ngi gis ku mel ne maam maam Mbaala Mbow maa ngi gis moom day ju ay doxal maa day ñëw daal jàkkal bi nit naa ko ma bëgg signé contrat léegi waaye bu xalaatee daal ne maam yàlla day aaye lool rek moom day daw te loolu rek maam mi si maam maam loolu si xeex la bokk maam isaan yi maam dafa bëgg a sori maam maam moom ñu def loolu maam si xeex la bokk parce que moom mi ngi influencé sama tweet maam pour gars yi di la bàyyi xel yow parce que maam loolu nga waral mooy maam yow la ngay xeex maam xeex bu noobu la te képp koo xam ne si maam ab ab influenceur nekk Sénégal maam yow boo bëggee lu baax maam dinañ topp yow maam dinañ topp maam yow maam si la ngay xeex parce que yow la ngay xeex maam képp koo xam ne si maam jullit nga wala nga gëm nga wala tey yow maam gëm nga suñu tubaab wala gëm nga yonent bi loolu nga ko war a xeex parce que moom ñaar tur yi li si ma suñu président li si wax man dafa leer naa moom nee na da xeex moom nee na bis ñu dugalee loi bi ma assemblée da koy lii da koy voté te loolu moom ma amul sax ma jëm kanam yow moom maam mbiru ñaar jigéen moom ah maam yow moom ma sant si yàlla que loolu état bu fi nekk moo ko njëkk bañ moom moom ma combat boobu moom jeex na li topp ma estibet ko man dañ ñu ko indil ma loolu la ma gën a maam day xeex ma loo xam ne ma gën a xeex parce que lool ba ngay xeex man day jël sa dëkk yow moomoo moom dëkk su dëkk bi yow yaa dëkk ma ko dama bëgg mu génn loolu nag moom ma a yomb si xeex moom loolu moom maam peuple bu ñu jugee rek daan dese prison baax ma prison bi ñu fexe ba mat tolloog ay un million wala ay un million six cent ñoo ngi ko prison ñëpp signé ñu dem déposé ko ñu génn maa ñu boole si ma service bëgg génn daal def ay manifestation balaa mat vingt quatre heures Sénégal parce que yeneen réew ñu wër yëpp ma boo xoolee ñoom dañu am seen fulla rek seen fulla la am ba yëpp ma ma am fa ma loolu nag ma dindi mooy ma jeunesse bi jug taxaw mais comme ni mu meloon si combat moom lii rek ma procès ni si meloon ma ma ko melee si lii rek maam day am waaw te dëgg nag boo si nekkee maam day mel ne nag maam day métti lool man li naan maam fen moom mën naa jël ma mën naa jël ascenseur dem dëgg jël escalier mais yàgg-yàgg maam dëgg mooy ñëkk maa loolu képp la ma yow maam tay yow ma yow mi nga nekk nii maa musi ragal musi tiit parce que yow yaa nek ci deug deug rek nag boo si day met parce que ma jaro jin tol ni ma lu bon la gën a preuvoir que deug bo boné ma kenn du laal kenn du touser kenn du critiquer mais bo baxé dañ lay critiquer dañ lay sagal lay wax ma lepp lay wax parce que bon mo fës jëm lañu tol ni mais na yow mais yow ma yow mais yow ci mom ma maam yow ya xam lo bëgg xam fi nga jëm ma comme ni nga waxee rek ma si ngay créé yow fexal ba moom ségrégation nga am fo maa ko woon ci ma day lépp santé foofu noonu ségrégation nga am fu ko woon ci ma moo la fay nekkal bu ko defee ma xeex bi da gën a law da gën am doole ségrégation yi ba ko wëree rek xoolal ma doomu xaj bi doomu xaj bi moo ñëw fii di saaga Pape Samba voilà Pape Samba dinaa la woon ne nii que man maa la gën a doon bandi yow loolu dinaa la ko woon te du ma ko wax si TikTok bi di ci kanam dinañ xam yow su fekkee yéen ay bandi ngeen may leen ñu temps rek le temps ñu organiser wu dinañ leen dinañ leen dinañ leen keppa dinañ keppa benn par benn loolu ci kanam lañ koy benn par benn wax leen rek ok yàlla laaj ko fu mu dëkk laaj ko fu mu dëkk yàlla nee na nee na mi ngi Paris nee na mi ngi Paris oh Sénégal dañuy gis jeune boo xam ne liggéeyul bëgg a tekki mënta ne voilà voilà voilà loolu problème man nag yàlla man nag yàlla man du sëgg tey man bokk naa combat man maa ngi

ñàkk nañ jom torop salté boo ko déggee walaay walaay walaay c'est vrai li wax dëgg la dëgg la de man su ma gisee kuy défendre góor jigéen sax man doo sax comprendre ñii kay boy ay caapataas lañ waxuma la sax caapataas te te genre yi nii te genre yi nii te genre yi nii boo taseeg ñoom ci mbedd bi nii comme ay góor jigéen dañuy noppi seen rey lamiñ yëpp ci internet lañ koy def waaw dañuy sëg xoola Adamo sénégalais bi nga ko fekkee foofu day sëgg jàpp bopp bi di raay ruus xam nga. yow ay tàmbali je te jure man man si nekk di rek man si nekk di war léegi mais bu ñu génnee nga dañuy jox ba tàncee du sa ñëpp yem kenn amul suite parce que dañuy ay ca patate ah yow góor di copier sa moroom góor yow yow yow yow soo nekkulee ca patate lan ngay doon lan ngay doon ah yow boo nekkulee ca patate yow lan ngay doon. yow fere caapal nga sa nga naan ay pari nga nekk Paris nga nekk envoyé sa numéro ñu jox la benn adresse nga ñëw nga xoolal nga récupéré seen taasukat yëpp ngeen ñëw bu leen neexee ñu wan leen lekk allez si gars yi ñu continuer waay. xam naa naa bàyyi nañ gars yi jël parole quoi. si Thierno jaajëf. waaw kan moo bëgg a jël si ginnaaw ñu avancé gars yi. daw na sax doomu aadama daw na amoo fu What man. Okay. Con- Metal up. Mais on a Ok, live. Eh? Euh, resement rek live bi nga doon def yow ak Fadam ak Boussa Këcap ak Cheikh Abdou maa ngi ko doon seetaan dama ko teewal ba live jeex te jour boobu dama waroon dem sa liggéey. Mm, mm, mm. ma doon xaar mais j'ai oublié sama toog parce que xam naa ne njariñ rek laa si jële si li nga nekk di wax dafa nekk loo xamante ni c' est très important pour ñu gars yi bàyyi xel parce que nag yaa ngi conscientiser jeunes yi. mooy gis nga ci cadre góor jigéen. Instagram wala sama TikTok peut-être que ñi ma mm. suivre bëri nañ bëriwuñ. Mm, mm, surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci domaine ci domaine sport bi domaine coaching bi ci domaine musculation bi. et pas mal de personnes yoo xamante ni nee nañ ay personnalité publique lañ ci réew mi lañ nekk ñu siiw ñoo xamante ni yàlla xam na ne des fois damay sax rus. ñenn ñi dañ ma envoyé message Instagram sur TikTok même ba ci influenceurs yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi xale jigéen moo tax gis nga moom laa faral di wax ma ne gis nga bul gis nit ba di ko ñee parce que xamuloo li mu doon. daf ma ci xaw a dimbale parce que ñu baree bari dañ muy muy muy muy muy influenceurs yu góor ak influenceurs yu jigéen te yàlla xam ne ay nit ñu siiw lañ am na ci kenn koo xamante ni ci gouvernement Macky Sall la nekkoon ministre la woon. jël daf ma jël daf ma jël daf ma euh, envoyé TikTok ma delloo ko retour. kii ma ne ko no coaching coaching laay def coaching personnel la def voilà mu ne ma léegi nag jox sa numéro comme ça xam nga comme ñun coaching personnel lañu def te man bo xolé man sama client yu bari ma ngi leen xamé à travers euh, ci réseau yi TikTok wala Instagram. numéro téléphone mu un message laaj ma waa naka lay demee coaching personnel naka lay demee mu ne ndax da nga def coaching privé ma ne ko du ma def coaching à domicile parce que nag laa xam naa conséquences yi nekk parce que coach laa ci yàgg naa ci milieu bi. waaw message ñu commencé discuter tak waa ji xoolal commencé ma doxaan barke alxuraan nga en tant que góor xam naa yaay kan yaa ngi dégg xam naa la dinaa la dina suba ñëpp xam yow yaay kan. jambaar danga nga am problème écouteur ah dégguñu la bu baax allo bon. allo dégguñu quoi bon. Koungheul ñoo ngi lay déglu. oui yàlla. Hmm. lay ziar daa lu mu bëgg a wax rek ma ne. ma dam ko fi dugg sank ci ginnaw neena neena nga misan ko dara soxla day dur rek. soxla si boy am nu fi dugg sank xamna baye ko xel neena dara soxla neena nga neena nga misan ko. ah day dur rek boobu xol ba duggee kontam walé ke sa la fa duggal day duur. xaaral <laughs> kala kan ci. man ma ngi xol kontaan am léegi sax mais gisuma ko quoi soo ko xoolee di ko gis. Euh, kooku ki ñuy woowee Pape Waly Samb. photo promo su ma gisoon naa ko xaw a yow kii ngay wax yow kii kii kii wax. waaw waaw daa mel ni. mais photo de profil am Wally Seck la sama rouge. mais daa dara laaj sa sa contact nee na nu muy def ba mise en la xaw ma dëgg. xaaral kan kan kan ngeen wax kii kii ngeen wax kii kii ngeen di wax. kii de.

noonu la demee Baye Mbaye dégg nga jaajëf ñu mais bul wax dara. ok moom dañuy soob sóob rek parce que moom duñu def dara. Euh, tak tak Black Cook ok Black lay déglu. gars yi sama bàcc ma damay ñëw couper live bi am ah. parce que damay ñëw dem togg ranger après dem xool deux trois employés di fee xool nu mu fa demee tey def et après ñëw dóoraat sama live. Black Cook gars yi un un problème problème connexion souvent c'est une connexion moom matul quoi am mat amuñu ay connexion yu mat quoi oh man no cry bon une connexion baaxul waaye là. oui Malaysia sak. écouté yi ya, ma tegoon ya, la quoi. yeah ok ñu ngi lay déglu. yeah ya, en fait juste damay wax rek uh, uh, comme yaa uh, def combat boo xamante ni wax dëgg yàlla intéresse nañu trop parce que boo xoolee récemment rek yaa am benn live def yow ak bu njëkk ji ak Fadam mais xam nga tey dañu nekk ci dëkk boo xamante ni yàlla wallahi laasim naa fekk ñoo ci bari te gis nga ñiy dugg sa live di la contrôle wala ñu naan lii wala lële ku ci wax sa rek ak yàlla rek tax xam na ne karma yow yow li nga nekk mooy dëgg mais nag boo xoolee la plupart ñoom ay nit la ñoo xamante ni dañuy topp ci ginnaaw nit ngir li ñuy am ci moom te loolu amul amul amul amul amul benn njariñ gis nga côté góor jigéen gi ngay wax man dama ci dama la ci dama la ci rejoindre à pour cent parce que tey ñun ci domaine coaching bi lañ nekk man coach sportif la salle de sport la yor en plus dama def athlète tu comprends

récemment rek am na ci ku ci message koo xamante ni ci ci ci ci ci état bu Macky Sall la nekkoon kilifa gu mag message ma voilà dama soxla coaching personnel voilà ma wax ko sama ay tarif jox ko sama numéro pour yow sax waa ji dañuy démarrer tag waa ji commencé dugal affaire ñàkk fayda waa ji ne yaa daf may doxaan te kilifa la ci biir réew mi waxuma la loolu sax mais célébrité célébrité yi nga xam ñu ngi ci ñu ngi ci biir réew mi influenceurs nga xam ñu ngi ci biir réew mi ak influenceuses nga xam ñu moo tax ma Mm. waruñu gis kenn ci réew mi ba di ko man na côté boobu noonu dama ci dama dama ko dund tey damay jot seen ay message yoo xam ne yow doo sax comprendre récemment gi dem am na benn waaye boo message sur ma ko sama numéro. Mm. ñu commencé di waxtaan ma jox ko sama numéro téléphone. mais waa ji xam naa ne carrément kilifala ñu commencé dugg ci détail ñu commencé waxtaan ni carrément mu envoyé message ne ma dafa la man yow en tant que góor yàlla saaga ndeyam mais waa xam nga la ma wax. Mermoz laa nekk. dama lay jox sama numéro téléphone jox la sama adresse nga ñëw sama kër yaa ngi dégg. Hmm. bu fekkee ne mën nga ci man dara parce que xam naa ne bu dee bu dee bu dee bu dee ginnaaw maa la ko bu dee xaalis ma la ko ëpp. bu fekkee ne mën nga ci man dara mais waa ji xoolal dama waa ji day def écho quoi. ma xam ci ay pas mal de personnes yoo xam ne ay ay ay kilifa lañ. allo. waaw allo ñoo ngi lay ya, déglu damal damal. affaire dafa doon dafa doon def écho quoi. Ah? mu leer na la waa ji dafa dem ba ci biir mu commencé di di ma menacer ma ne ko saa mu ne waaw ma bu fekkee la ngay wax dëgg la ci yow jox ma sa numéro téléphone jox ma sa adresse ma ñëw fekk la fi nga nekk mais waa gis nga boo waxee loolu dafa ma bloqué ci saase. billaahi moo tax des fois damay ba ci yàgg ma ne ma ne ma ne réew bi dafa tas surtout suñu domaine bi ñu nekk dafa nek domaine bo xamanteni manam domaine bu xawa sensible la motax bo boo bo waxe ci affaire góor jigen man dama ci dama ci dama ci sawar pour pour pour pour pour pour pour pour xex bi ngay xex gaay japp ci xam nga support la appuyer la voilà pour pour pour pour pour li ngay xex mën a mën à 100% parce que rew mo beuri ay nafaq barki alxuraan réew mi moo bëri ay nafaq parce que lan khalis ta gis nga succès du dara gis nga ñi nga gis fii ci réew mi ñu leen tudd ñu nekk ay ñu nekk ñu nekk ñu ne ay kilifa lañ ci réew mi duñu ay kilifay dara parce que duñu ay nit dara mais ñi leen topp la moo tax ñu di leen topp succès bi ñu am ci ñoom wala xaalis bi ñu am ci ñoom te nit lañ comme ñoom même domaine bi ma nekk man dama ci xam ñu bari ñoo xamante ni yàlla xam ne te ku ma tegoon ku ma tegaloon kaamel ma waat na ñii ay góor jigéen lañ suñ domaine bi la ëpp nag muy domaine coaching bi ak domaine musique bi musique bi. boo xoolee. non non bi man man en fait. des fois sax sur wala Instagram nit daf may envoyé message jox ma sa numéro téléphone du ma ko sax jox du ma ko sax sama parce que ay affaire ñàkk lay lañ lay lañ lay wax am na ci benn kilifa gu mag goo xamante ni ci état Macky la nekkoon barke alxuraan ministre la message ma commencé à affaire yooyu noonu ak beneen artiste boo xamante ne ci artiste bu siiw kenn ki joué ko théâtre la nit ku siiw la ci biir réew encore mais gis nga gars yi damay jég saa ma leen tegal bànni ma ne leen nag yéen xam naa leen. te man man de wax dëgg yàlla soo ma envoyé woon seen ma tasaare parce que boo gisee benn doomu pauvre boo xam ni moom ndax dix mille ñeme na def lépp kooku jëlee trois cent mille jox ko da lay jox taatam. billaay am na ci am na ci kenn koo xamante ni moom nee na euh, moom mooy moom moom moom mooy moom mooy moom moo nekk ambassade bu bu bu Mauritanie waa ji dañu démarré commencé waxtaan waa ji commencé ma proposé full money ma ne ko sëñ ne ma ma ne ko gis nga bu fekkee ne sama teg sa loxo la nekk jàppale man ci pauvre laay dee parce que benn xam naa may kan en plus de cela taalibe la en plus de cela Touba laa yoroo fa laa defee lépp jàng naa alxuraan ba mokkal ko comprendre nga nag. coaching bi dafa nekk sama passion ma jàng ko pour nekk coach te wax non bu fekkee na naan non yéen leen gis boole ko sëñ bi man soxla ma jàppale parce que benn man coaching bi ma nekk dama ci fay yoo xamante ni déjà rek pour mën a nekk coach boo xam ne coach professionnel la te bi ma koy def amul kenn ku si jàppale sama passion la yaa ngi dégg am naa ay mbokk yoo xam ne ma ne ma jàppale mais jàppale ma mais man maa dem ak sama propre moyen pour mën a nekk ki ma bëgg a doon waa ji commencé wax moom tamit wax ba commencé ma dépassé ma ne ko léegi xam na lu ñuy def jox ma sa adresse gis nga jour boobu yàlla xam na tey dama dama dama dama dama dama rassemblé euh, gars yi ñi nga xam ne ñoo nekk sama saal di entraîné ñoom ñëpp ma joxonte ak moom rendez-vous ne yow jour tel danañ fa ñëw ànd ak sama genn mais gis nga waa ji ma ko waxee waa ji waa ji dafa ma bloqué fépp moo lay xamal ñoom ay tapet lañ duñ ay nitu dara ay tapet lañ. te ci gën a garaaw mooy fu ñu nekk bañ commencé leen bañ commencé leen soupçonné rek dañuy see gën dem feneen. billaahi te Sénégal moo nekk moo nekk moo nekk moo nekk réew moo xamante tey boo fi nekkee tey surtout nga yëngu ci wàllum coaching wala nga yëngu ci wàllum euh, comment dirais-je ci ci ci ci ci bi. gis nga genre genre label yow dañ lay gëmloo ne ko carrément mënoo dem sans ñun boo bëggee am tur wala nga am succès rek il faut nga jéem a xam nga bokk ci ñoom pour ñu mën la pour ñu mën la pour ñu mën la yëkkati sa niveau bu ma yëkkati gis nga sa fii yàlla rek moo fi nekk nit boo nekkee ci li nekk gëm sa bopp sellal ko sa diggante ak yàlla rek tax surtout nga am gëm-gëm xam yaakaar xam li nga doon yàlla xam ne man pour man kenn wër la mën a influence man nee naa leen bu fekkee ne yooyu tey man ci laa inscrire pour mën a nekk ki ma doon wala ñëpp xam ma yàlla xam ne pour man du ma am dara parce que gëwuma leen parce que même bu dul dara man nitu daara la jaar naa ci daara jàng mokkal alxuraan bind kaamil soo koy ñëw Dakar moo tax gis nga yàlla gëm-gëm dafa am solo ci doomu aadama. dafa am solo ci doomu aadama parce que loolu mooy base bi nga xamante ëllëg fépp foo mën di dem dara dara du tax sa bët daray àdduna du la soppi kaw suuf mais imagine nangu nangoo ñoo liggéey nanguwoo ñoo nanguwoo ñoo sol ba pare bëgg kenn. moo tax it mooy bu leen yëgale ci kenn. nangu ñoo liggéey bëgg nañ lu yomb moo tax pour nga influencer leen dafay yomb man nag li tax may li tax li tax li tax li tax ma gën a ma gën a dugg sax loolu ci la bokk. parce que yàlla xam ne damay jot ay ay messages yoo xamante ne doo sax comprendre damay mujj damay bloqué bloqué bloqué bloqué ba damay sonn te yàlla xam ne de xam naa ci ñoo xamante ne ñu ngi ci domaine cosmétique ñu ngi ci gem boobu di ko dund mu nekk lu ma metti man moom maa nit koo xamante ni su ma xasee su nekkee yow su ma la xawee soupçonné que ne carrément yow ci ngay yëngu wala ma xawale ci kii rek. bon sama relation ak yow dama koy coupé am na ci benn gëla bu doon fréquente sama salle benn jour dafa ñëw ci salle bi ma gis ko mu def benn gest daf ko def ma ne ko hey salle bi bu fi ñëwati ma ne ko yow lesbienne mu ne ma yow naka nga gisee ni di ko tuumaal ma ne ko gis nga même boo ma ne ko yow boo nekkul lesbienne yaa ngi fréquente lesbienne yow ana jigéen a fekk sama robu jigéen taxaw nga di ko tàpp di def ay gestes yoo xam ne gestes yu ñàkk fayda moo tax wallaahi yàlla ñun ñu nekk ci salle dañu sonn lu nekk la ñuy dund ci ci ci ci ci ci ci ci domaine boobu noonu après dinaa la jël ci suuf yaa ngi dégg billaahi dinaa la jël ci suuf vu que yow yaakaar naa sax après nga en retour envoyé la ñi ma lay wax benn par benn te ay nit ñu siiw lañ moo tax nit bul ko gis mukk ba di ko ñee parce que xamuloo moo kan xamuloo lan lay dund parce que alal àdduna du dara am-am du dara succès du dara parce que ay nit lañ comme yow bu fekkee ne bu fekkee ne ñoom lu ñu nekk ci nga nekk ba tax euh, nga mën am succès saa yi loolu dara àdduna du ko jëru succès du dara nit lépp looy def da nga war a seet sa diggante ak yàlla rek tam moo tax des des fois dama toog ba jàgg ma ne yàlla ami li muy xeex nii xeex la boo xamante dafa sensible mais nit ko am gëm-gëm la nit ko am dëgër laay la te amul gis nga bu la kenn xoqtal bu la kenn teg batanga kii ba tax nga ba tax nga dellu ginnaaw yoonu dëgg nag li Youssou doon wax rek boo ci nekkee di nga wet bu ragal ku la xas bu ragal ku la saaga bu ragal ku la ŋàññi mais ñoom képp ku ci wet ci xam wax digganteem ak yàlla rek tax wallahi dina xam ne yow li nga xeex mooy dëgg te gis nga fii ku dee ak sa bàmmeel ku dee ak sa bàmmeel bàmmeel xat na moo tax gis nga nit lépp looy def ci kasu nga sóoraale sa diggante ak yàlla parce que dee moom sa waay du jaas de te buy ñëw wallaahi dafay bett te dee bis boo ko xasee def rek pare nga ci moo tax nag gars yi dañu war a tuub dellu siwaat ci yàlla balaa balaa balaa balaa yëf yi wees te wax dëgg yàlla yow man pour man li ngay def jaamu yàlla mënu koo gën a kawe parce que déjà yaa ngi tax jeunesse bi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi conscient benn carte xaalis moo nekk li gën a bon te moo gën a mën a delloo suñu réew ginnaaw ak affaire góor jigéen mais senegal amal tur rek nekkal nit ku siiw rek amal xaalis lépp lu la nit ñi maanaam lépp lu nit ñi di wax rek lépp lu la nit ñi teg sab der même bu fekkee ne yow ay ñaawteef nga dikk di ko def suba ba ngoon seytaane yi naa fekk ñoo taxaw fële di la défendre ngir lan lañuy am ci yow moo tax nit li nga xam ne yow euh, naka laa ko mën a waxee en fait gëm-gëmu doomu aadama man pour man nit bu fekk am nga gëm-gëm xaalis waru laa mën a jënd. billahi wallahi man nit proposé na ma ay millions ay millions ay millions des millions ma ne ko sëñ bi ma ne ko teel sa xaalis parce que man taalibe laa xam naa maay kan xam naa naka laa mën a def pour am xaalis dèjà maa ngi liggéey te du ma yàq xam naa maay kan. bu fekkee na nag lii ngeen may proposé yaakaar ngeen ne carrément moo tax ma teg mu ne ma ma ne ko kon ci pauvre parce que sama ay waajur am am na lu ñu def ci man dañ ma yar jàng ma alxuraan ba ma agsi fi ma agsi donc am na loo xamante ni su ma ko defee rek man nekkatuma ki nga xam ne moom laa doon parce que jullit laa doomu jullit la ay góor ñoo ma jur am na yenn détails yoo xamante ni doxuma ci mais en tout li ma lay wax mooy soit foog ñoo ngi sa ginnaaw te li ngay xeex nii bu daree àdduna tax nga dellu ci ginnaaw wallahi ñoo ngi sa ginnaaw. te lépp luñ man tamit pour xeexale la xeex bi dañ koy def parce que déjà c'est le Sénégal qui gagne te yow ku lu xam ne patriote dëgg nga si réew ngay xeexal te Sénégal rek moo la ñor te léegi ngay xeex ne amuloo ci dara te yaa ngi dégg lu nekk ñu ngi la ciy saaga ndey ñu ngi la ñu ngi la ci ñu ngi la ciy saaga papa yaa ngi ciy dégg lu nekk te taxul nga bàyyi moo tax li ngay def nii jaamu yàlla gënu ko kawet suñu borom rek moo la koy fay wallahi bu teggi sa tànk loolu laa amoon ci lu may wax. voilà di la sant di la gërëm. jaajëf waaw di sant waaw di sant gars yi nga xam ne tamit ñoo nekk ci suuf di ma teewlu. voilà lépp loo xamante ni lu si jublu rek ñoo xam ne euh, ndimbal suñu borom la lu ci dëng tamit ñoo xam ne mati doomu aadama la. incha allah. jaajëf jaajëf mon frère. jaajëf jaajëf merci grand yi naka leen jël waaw. voilà di waaye li nga ko waxee noonu la sax waa bu ñu mënee waaw man booy sànq ba ma génnee noonu wax naa ak booy booy nañ pare nañ pour lépp. pare nañ pour lépp ah, maa ngi maa ngi ñu ubbi groupe bi tuddee ko. dañ koy bëggoon sànni takku naana rek ñoo la fi jiitu de pourtant. waaw kon bismillah. waaw dem leen dem leen dem leen. amul benn problème alaykum. waaw salaamaaleykum jë yàlla maa ngi lay siyaar bu baax. di Mm-hmm. man xaw ma keneen de mais man xam na sama liggéey bi nga def ni liggéey noobu la te daan fi ñëw di xeex yàlla lu lu la ter gars yi gars yi s'il jox leen ku jigéen ci parole parce que jigéen yi ñoo fi prioritaire après kooku noonu kii di wax noonu mu jël ko après je sais pas kan la modérateur yi jëm leen ko gérer man maa ngi dégg rek mais gisuma écran waaw ku jigéen ki na jël bokk wala ki doon wax na jëlaat comme ñu avancé. non damaa taaloon sama micro ñu fay ko. ah ok ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay déglu. waaw lu xaw fii. kii bi koko activé sa sa sa bi. waaw damay développé ñuy fay fay sama micro qu'est-ce qui se passe. vas-y, D'accord. Mané, on est de tout cœur avec toi. Ce combat, c'est un combat tellement noble. Mais malheureusement, il te faut mm. beaucoup de renfort. Genre, tu ne dois pas te sentir seul dans ce combat-là. Parce que en fait. Et puis, mm. c'est d'autres systèmes qui actuellement. Parce que euh, derrière la personne de, de, de Wali, il faut mm. savoir qu'il y a des lobbies très puissant très mm. très très puissant Yo savez, Sénégal c'est partout dans le monde déjà ça il faut en être conscient mm, mm, il faut nga xam ko bu impliqué pour toi euh, à part à part à part wali affaire nga jeu tout ce qui est divertissement jeu aussi système la bu boo xamante ne y' a beaucoup de de mafia dedans. Mm, yow mm. li nga nekk di soobu nii xamoo sax yow ampleur bu mu am ak doole bi ñi nga jàkkaarloo am. tu vois donc tu dois pas te sentir seul dans ce combat là il faut que ñu am nga am ay nit yoo xamante ne lay soutenir un peu mm. partout dans le monde même pas même pas seulement au Sénégal il faut que tu sois soutenu partout dans le monde parce que li ngeen nekk di dugg nii dafa rëy de. dafa rëy tarap tarap te man lenn laa képp koo xamante ne yaa ngi taxaw di défendre ay Wally Seck ak une personne égoïste parce que yow li lay bëggal la nga xool xooloo li yàq dëkk bi ak li yàq jeunesse bi yaa ngi dégg góor gu ne léegi nga di dem xeesal ba weex tàll yaa ngi dégg takk takk say rasta pour rasta yi du représenter lenn lu dul karaw gu gudd karaw gu gudd puisque mënuñu ko am ñu takk ay rasta nekk efféminé bay bëgg a dee dafa daw yaram sax tu vois li ni ñun arrangé wuñu ñun ñi jigen ñi parce que dañu bëgg goor yàlla deug deug ku viril li arrangé wuñu quoi parce que nous on a besoin de mec viril quoi franchement ils n'ont qu'à arrêter ça même en Europe sax légui nit ñi ñi ngi xex wuubi quoi parce que li ça fait ça fait tellement chier bu yàggee àdduna bi dootul amati bu góor di daw jigen jigen di daw goor aduna bu yàggee dootul exister té gars li ñu xamone instant yi ivoirien yi ah goor jigen yi ñu nekk di dàq ñoom seen bir dëkk nous sommes Sénégal les parce que Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo am stabilité bu ñu soxlo pour mën fa dund. donc ñom Afrique de l'Ouest bi seen ngi daw di dugg Sénégal Lolo tax commencé nga gis sax ay yenn influenceur yo ay Ivoiriens des ah ah. Sénégal ñëw tout le temps. Sénégal ñëw tout le temps en plus sénégalais vu que ay dof vu que ay dof lañ leen di jox man yéla nous, parce que fii góor jigéen bu fi am doole xale yi jigéen yi ñoom ñoo la doole. exactement exactement. parce que ñoo lay jël bu ñuy def seen natt yooyu ak seen ndaje yooyu teg la fa ngay bii joo ko ñaar yooyu la ñu war a bàyyi bon man maa ngi wàcc sama doom bi maa ngi lijjanti sama doom. <laughs> merci amul benn problème merci merci Coco à tout à l'heure waaw Babs Grappol la keneen na keneen jël gars yi ñu ngi leen déglu. ivoirien yi dañoo jëkki jëkki toog rek gis góor jigéen yu bëri ibrahima jëlal ba ibrahima jël ok Hier, Ibrahima Ibrahima. waaw maa ngi. waaw acca jëlal gaaw balaa keneen di wax après ma doog a jël. ok merci beaucoup Bab Graf eh, eh, eh, bi nga ma joxe wàccuwaay bi. Euh, man li ma dugg nii nii pour wax Yella li nga nekk nii di xeex euh, xeex bu noble la parce que da ngay nekk nii di jaamu yàlla di tere jeunesse yi di tere jeunesse war a def lu bon ndax carte xaalis man mi di wax ak yow nekkoon naa si nekkoon naa si daaw daaw laa te ndaw jour boobu cent mille laa teg cent mille boobu laa teg du ma ñàkk timis laa tëdd timis guddi boobu yëpp dama doon xalaat xaalis boobu depuis jour boobu laa gëj a joué pari foot ndax baaxul man am particulier maa ngi Medina Dakar mais def naa tuuti Saraxule la Bakel laa nekk te def naa tuuti <laughs>

booy sax bu ñu yorul. jambaar jambaar seen village waxuma la sa village de ah. am nañ fi benn kaas benn sër saraxule yor naa fi numéro ba léegi. Mhm. kooku dañ ka nax dugal ko ci biir carte xaalis bi moo ñàkk ci xaalisam. Mhm. ah xamatul lu muy def village ba la jógee Dakar xamatul lu muy def xam nga lañ ka def. Mhm. dañ ko ne kaay jàppale na récupérer sa xaalis ba mu ñëwee. gars yi foowee ko. gars yi foowee ko cest à té tëddee ko tëddee ko ba pare ne ko demal dinañ la envoyé wéef mu dem deux trois jours plus tard gars yi woowaat mhm. ko ne ko ñëwaatal ci yoroon tiw wéef bi ah ñu xamul xamul moom mu ñëwaat gars yi tëddeewaat une deuxième fois te témoignage yëpp a ngi fi témoignage yëpp a ngi fi waaw ñoom lu bëri peut-être ñoom musuñu voyagé peut suñu première fois ñu ñëw Dakar exactement eh, mais loolu man fii laa juróo Dakar laa juróo mais naa neuf ans côté Bakel Medina laa juróo maa ngi Medina fi nga ma waxee sax hmm. yow fi Rebeuss ak man sama kër maam ri trois angle douze sori hmm. mhm. man eh, man li may man dama dugg si la man njag naa la topp depuis un mois et demi maa ngi lay suivre tey laa soog a yëg sa live man maa ngi nii sa ginnaaw yee la maa ngi lay waxal bépp fooy dem wooma man dina la topp parce que ñun mm-hmm. daf ñu créé pour ñu adhéré ko wa ma xalaqu jinni wal insa illa li yaabudun yàlla moo ko wax man dama mm-hmm. dama doomu aadama pour ñu jaamu kase te yow li ngay def ni jaamu yàlla la man dama ñëw si àdduna xam naa xam moo tax yàlla créé ma pour jaamoom loolu laa nekk nii di man euh, wax wax yi tuuti rek laa mun wax si yow nag di lay jaajëfal bu baax. jaajëf jaajëf. combat bi nga nekk nii yal na yàlla fay la. yal na bépp bépp bu lay waa gars yi euh, nuyu naa leen. yala yàlla lay maa ngi lay nuyu di euh, di nuyu ñi nekk ci suuf ak ñi nga xamante ne aussi euh, bëgg nañ yeeg mais ñoo ngi ci suuf aussi ak ñi nekk ci panel bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di la wax ni yàlla li ngay xeex vraiment bëggoon nañ ko parce que parfois da ngay bëgg naqar lu benn affaire sax mais malheureusement doo am foo ko waxee. te lii nii opportunité la pour opportunité la pour ñun jeunes yi ñun ñi nga xamante ne bëgg nañ bëgg nañ def lu baax wala bëgg nañ euh, wane exemple bu baax ci biir internet bi parce que bëriwu fi woon quoi waaw bu euh, chaine bu mel ni par exemple compte Yalla bi su ma ne mën naa wax sax amu fi parce que gars yi parce que àdduna choix la quoi am na ñoo xamante ne ñoom ñoo choisir jël benn beneen yoon bi. mais dafa am ñoo xamante ne dañoo choisir jël yoon bu positif bi mais mais malheureusement amuñu benn influenceur bu leen di xeexal léegi ñun luñ mën a def mooy noppi rek muñ ànd mais tey bu yàlla dogalee ñu am benn yàlla boo xamante ne bon nekkal na nit ñi nga xamante ne dañoo dañuy dund positivement loolu dañuy ñaanaat am yeneen yàlla yoo xamante ne dañuy dévoiler secret yi nga xamante ne.

te yaa ngi tax gars yi di gën a gëm seen bopp xam parce que star amul influenceur amul man mi dugg ci euh, panel bi dama am métier damay liggéeyal sénégalais yi tu vois dignement ba pare respecter sama image parce que je reçois pas mal de messages yoo xamante ne ay ay ay dunk la parfois nit message ma nga nekk sénégalais nekk jeune comme man comprendre nga ne dama bëgg tableau ma ne la waa baax na parce que jour boobu daje naa ci mais dama daf ma choqué quoi en fait ma mu ne ma dafa bëgg tableau ma ne ko ah ma ko waa na léegi après euh, ma ne ko ban tableau nga bëgg ñu wax changé mu ne ma waa léegi euh, yorul xaalis ma ne ko yoroo xaalis parce que anonyme la quoi xaw ma góor la xaw ma jigéen la ma ne ko waa d'accord léegi nag euh, mu ne dama lay envoyé sama photo nga defaral ma. bon man ma yaakaar ne peut-être loolu noonu waxi jigéen la quoi en fait mais mu envoyé mu photo mu nekk góor mu ne ko yow foo dëkk mu ne ma Ouest Foire ma ne ko non attends man affaire bi choqué ma quoi mujj gi dama ko bloqué sax parce que numéro bi dama koo bloqué dafa supprimer photo bi ma envoyé woon da koo supprimer mu nekk góor yàlla boo xamante ne demagul fenn jeune la mais affaire bi dafa ma choqué quoi mooy wane ne internet bi yaa tout am na lépp mais dañoo dañoo war a am foo xamante ne ñun fa la ñuy jooyee mooy li nga xamante ne dañ koy daj ak ñi nga xamante ne dañuy influencer nit ñi à que ñu choisir beneen côté bi war nañ mën a am koo xamante ne tamit dañuy xeexal pour ñu mën a choisir dem ci côté bu positif bi waaw te loolu noonu euh, yelaa moo ngi koy xeex kon ñoo ngi ñaan am am yeneen yelaa yoo xamante ne yow boo xeexee gauche ñoom tamit euh, ñuy xeex droite bu ko defee affaire bi gën a bëri parce que parce que ñee dañoo bëri ñee dañoo bëri euh, ñun dañoo tàmm am ay am ay vues yu bëri xam nga pour nit ñi di la topp mais bu ñu amee ay nit ay nit yoo xamante ne am nañ visibilité am vues yu bëri di woon nit ñi euh, ci côté bu positif no dañuy dem ànd ak ñooñu parce que ñun loolu la ñuy def ñun loolu lañ gëm loolu la ñuy dund tu vois ay sénégalais lañ quoi loolu buñ ko amee loolu moo ñu gënal. nekkul ne ñeenee dañoo am rek xam nga duñ xeexal sénégalais quoi parce que ñooñu am nañ li ñuy am ba pare duñ fi nekk di toog di xeexal benn sénégalais kon bu ñu amee kuy sacrifier live am pour xeexal jeunesse yi non vraiment dañoo war a dem ànd ak moom xam nga di jaajëfal yàlla ci combat bi euh, di la wax aussi euh, bonne continuation parce que ñun ñoo ngi sa ginnaaw waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp waaw di jégalu ñëpp aussi wasalaam. ok yàlla man moom li ma koy wax du bari mooy maanaam comme waxee sànq rek ñu ngi sa ginnaaw côté yëpp côté boo taxawee ñu ngi sa ginnaaw yàlla of oh, ñu ngi sa ginnaaw billaay wallaay wal kitaab man moom man Cheikh laa wax chaque live chaque sa live maa ngi si biir tey na muy doog jël toujours dama naan bëgg damay mer sax ne lay leeraam yi kat baax ndax jëluma bàyyi ma mais tey di ma jëlee laa kontaan sama bopp man ndax wax naa li ma gëm waaw te incha allah la yow yàlla di nga kontaan ci man. incha allah. ndax li ma pare pour def nii parce que alxuraan di nga ci man. dina man jàmbaar nee nañu nee nañu xeex boo mënut a gis rek dafay am ay ñoo xam ne dañ siy jiitu c'est-à-dire ñoom ñooy ñëkk def premier pas yi ñoom ñooy ñëkk def premier pas yi c'est de ça qu'il s'agit donc su fekkee ñun ñoo war a def premier pas yi pour que ñeneen ñi topp ci dinañ ko def. parce que du suñu parents yi ñoo koy def du suñu mag yi ñoo koy def ñoom sonn nañ ba pare ay mag lañ wax rek lañ mën def mais ñun mën nañ wax appliquer. waaw léegi xam nga nu mu demee. man man sama compte TikTok amul doole mais dinaa def benn vidéo si góor jigéen ñi taal seen drapeau def xibet taal ko envoyé ko nga partage. incha allah amul problème dinaa ko partage si leen compte bi. comme ça ñëw sûr ni ni que TikTok di ko supprimer. voilà. naa fa tal xbet sa photo ci kaw surtout surtout surtout man limay c'est à partir du moment où am nañ une ville bu paré pour générer au moins 50, 30, même 50 personnes les baax commencé une première manifestation ci ben ville peu importe il faut tout le temps que nous am une première action première action deuxième action après ah, petit à petit mouillé, mouillé, nanke nanke. waaw jàppal ne Mbour pare nañ. yow ñun ñun ko gérer en pri en privé dinañ ko gérer en privé. waaw ndax wax ji fa wax ji fii sax yenn autorités yi mën nañ kaa dégg. jël ko xaw fu hmm. ñuy kalak yooyu noonu. nañ nañ ndànk noppi dal incha allah laa man dinaa jàpp si combat bi yàlla te dinañ ci man benn geste bu ma gën a métti sama life mooy lenn ci wàllum góor jigéen ñi quoi. simb góor jigéen bi ñuy favoriser Sénégal simb ñu ne kii góor jigéen lu quoi. kook di génn daw xale yi di gis moom muy defi fi jigéen ñu ne kii moo favoriser góor jigéen si simb loolu dafa yàgg senegal yelaa te kenn waxu si hmm. yàgg te kenn waxu si man ñun maanaam mbuur fii booy fii booy dañoo mënta yegg si live quoi mais fii nii laa kenn du fi simb di si booleeti góor jigéen wala dara dootut amati waaw te incha allahu rabbi ñu ngi sa ginnaaw yelaa ci garaan nga nag yaa ñu may fit yaa ñu may doole yaa ñu yaa yow suñu wax ñun ñëpp bëggoon nañu wax bu yàgg mais mënuñoo wax billaahi ndax gars yi dañuy doo dañ ñu wàññee ndax ñu ngi Sénégal ak Sénégal yoo xam nga ni mu demee. ñi la war a jàppale ñoo lay xeex. exactement. mais ñu ngi si incha allah. incha allah te génn incha allah. incha allah façon dinañ jëlante dinañ jëlante ci whatsapp bi incha allah amul benn problème. ok waaw merci. ñun façon préparé benn affaire donc euh, dañ ci dem nanka kanam. ok man lépp pare naa yàlla boo paree pour defar ay test ak lépp pare naa man pour def lépp maanaam man Cheikh. ndax dama ko hmm, Cheikh Omar allez euh, Abdou Abdou Mbaye est-ce que mi ngi Abdou Abdoulaye bon Abdoulaye Mbaye bon. Euh, gars yi le temps que ma pare gérer deux trois petits trucs Moi, j'ai des connaissances au niveau de ça. Yeah, yeah, bandit clavier. Envoie-moi un message, avec. Salut, bébé. <laughs> en on <laughs> a Voilà. Et bien. wala ma ñu ngi ñàkk fayde ñu ñàkk nañ jom torop xalit instant yi ceebu yàppale ceebu péya ceebu yàppale gars yi di rek di ba ci kanam boog am na vidéo yi ma war a dóor xam nga et ensuite dinañ talaat laay bi xam naa guddi de temps que termine job bu ma nar a def nii ci li mu wax leen bàyyi waali bàyyi ñu ko te duñ a bàyyi moom moo ñu war a bàyyi ci boppam waaw moom moo ñu war a bàyyi ci boppam ñaaka lañ jom torop allez ciao di commenter rek comme ça ma mun leen bloquer ngir yàlla waay merci voilà man da leen di commenter ma bloqué leen parce que man dama bëgg a denc sama abonné yi am xel rek man sama abonné yi am xel rek instant nii man bugguma sax ngeen di nekk samay live yéen ñii di nga xam ne yéenay bokk beneen parti bi parce que bugguñu ngeen xam li ñu nekk di def donc looloo tax ma leen di bloqué di leen bloqué bloqué bloqué comme ça i éviter di di xam nga beneen yoon ngi ñuy sonal suñu live quoi loolu non seulement de éviter loolu noonu mais lan lay éviter waat ci ginnaaw day éviter ngeen xam li ñuy def bés bu ñuy génn rek mu doon surprise surprise bala ñu gisee ci mbedd bi rek bu leen ñëw ngeen dëggal seen bopp bopp mu jeex booy moom bu ñu génnee abare ngeen déggal seen bopp li si des yëpp ci groupe whatsapp yi lañ koy dóoree nanka nank